وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ۖ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون aousubillahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim laa hawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalina sayidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi diin mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu aq di leen baal aq di ñaan yal nañu yàlla boole baal yal nañu ko teewee ni ngeen di déwén yal na yàlla may ñu sutura daa bi jaahi seydina muhammad sallallahu alayhi yal na yàlla boole xol yi muy benn ñu yëkkateendoo di tegandoo bi jaahi seydina muhammad sallallahu alayhi ah, mbokki jullit yi mu mel ni rek ñu nuyu ñu fi nekk oustaz Sidi Ahmed Mbaye Ibra Gueye suñu technicien yi la Abdoul Aziz Seck Papa ak Abdoul Aziz Diop ak Omar Diop di nuyu kilifa diine yi ci réew mi yëpp fu mën a nekk ñu ngi jël suñu nuyoo ci ñoom teg ko ci loxol suñu wayjur suñu xarit suñu soppe suñu baay di Seydi Alxaaji Cerno Mouhamadul Bachiru Taal mu muy muy nga xam ne mooy xalif général omarien ñu ngi koy teg ci loxo mu jottali ñu ko mbooleem xulafaaw yi ci réew mi yëpp di nuyu ñuy waxal diine ci rajo yeeg télévision yi ak euh, réseau sociaux yëpp di nuyu mbooleem aima yi ci réew mi yëpp ak fu imaam mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di wax ne ñu ngi nuyu tamit mboolem ñi ci diaspora bi yëpp di ñu seetaan boole di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu ñoon ñëpp ak fu ñu mën a nekk ci jasporaa bi rek lu ci dëkk ruqi-ruqi ku fa nekk toog di déglu rekk ñu ngi lay nuyu di santaat yàlla daje bi ñu dajewaat tey ñu ngi yemoon démb wax ne incha allahu dañuy yeggali tuuti ci liñ jëloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama suñ ci yeggalee rek ñu dugg nag ci laaj yi nga xam ne ñoo fi jote a si suñu technicien bi jottali ñu ko muy Abdul Aziz Seck bu ko defee luñ ca xam suñ kemte lay kàttan ñu bokk ko tontu ko ak yéen luñ ca xamut it ñu bokk gëstu ji ko mais ku ku ñu ca xam ko wax ñu ko ñu wax leen ko mu mel ni kon balaa ñuy wey tuuti ci buxuur yi nga xam ne jëloon nañ ko démb waaye lu jiitu loolu am na ñetti aaya yoo xam ne dama ci juum démb ndax am na ñuy déglu ñoo xam ne loo juumit ñu ngi xaar nga rectifier ko moo tax seetaanaat bi daanaka rek dama ko farataal léegi bi ma ko demee di ko seetaanaat laa yéeg ne rekk am na ñaari laaye yu ma juum benn bi bi may wax ci wàllu àjjana wana maariqu dama ne wa zarabiyu mabsuusa afalaa yanzuruuna ila al ibili kayfa xuliqat wa ila alsamaai kayfa rufian wa ila al ardi kayfa sutihan wa ila al jibaali amu ci waaw kañ wa ila al jibaali laa tëb waaw wa ila al jibaali kayfa nusibat wa ila al ardi dooru ñëw kayfa sutihan dama ko tëboon rek ne wa ila al ardi kon maa ngi koy jéggulu dama waroon wax wa ila al jibaali kayfa nusibat door a wax wa ila al ardi kayfa sutihat beneen ba ca toppit dama ne mooy fi fi ma doon waxee ne subhanallah ci wàllu yonenti bi la benn tey dinaa dinaa ko fàttaliku foofu it dama ci juum ak bii nga xam ne moom lay tudd si nii lisaanu alladi yulxiduuna ilayhi ajamiyun wa haada lisaanun arabiyun mubin ni ma ko waxee woon dama ci juum waaye lisaanu alladi yulxiduuna ilayhi ajamiyun wa haada lisaanun arabiyun mubin beneen bi ci suratul baqara la bi ma nee alif laam miim baada audu billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alif laam miim zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiina alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun looloo ci topp man dama indi wa yutuuna zakaata te bokk ci yaakaar naa bokk ci de waaw ah, kañ foofu am na feneen waaye fii moom wa yutuuna zakata amu ci alladina yuqimuuna salaata alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiquun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflixuun ñetti laaya yooyu laa juumoon bii mooy bi ma njëkk a tudd nii alif laam miim zalika alkitaabu laa rayba fii hudan lilmuttaqin alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ulaika ala hudan min rabbihim ah waaw kañ dee ma gaaw walladina yuminuuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bilaxirati hum yuqimuun alif laam miim zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqin alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bilaaxirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflixuun yaakaar naa noonu la waaw bii mooy bu jub bi beneen ba lisaanu alladi yulxiduuna ilayhi ajamiyun wa hada lisaanun arabiyun mubin bala ca desit wax naa ko sànq wa ilal ardi kayfa sutixat wa nusibat moo ko jiitu waaw wa ilal samaai kayfa rufiat wa ilal jibaali kayfa nusibat wa ilal ardi fa zakir door a moo mel noonu ñu ngi ciy jéggalu kon ñu ngi yemoon démb fi ñu waxoon ne seydul xaaji malik moom la indi ci miimiya ne xam naa guddi gi nga xamee ne mooy guddi gi leer gi wàcc ci roxamu saydatuna aminatu bintu wahmin mu ne xam naa ko ñu ne ko kañ la mu ne leylal arubati la lañ ko jébbal saydatuna aminatu muy guddi àjjuma maanaam alxames ci guddi lañ ko ko jébbal set di àjjuma niñ ko waxee woon démb samdi dimanche altine nag la ëmb bi fa sosu moo tax Maodo ne xam naa ban bés la waaye mu ne ca altine ja nag ci la sosu fa tabaarakallaahu ëmb boobu nag am na ñu ne juróomi weer lañ ko ëmb am na ñu ne juróom weer lañ ko ëmb am na ñu ne juróom-ñetti weer lañ ko ëmb am na ñu ne juróom-ñeenti weer lañ ko ëmb am na ñu ne fukki weer lañ ko ëmb waaye Seydul Xaaji Malik nee na wax yépp ba ca gën a wér mooy juróom-ñeenti weer lañ ko ëmb moom la Seydul Xaaji Malik indi ñu baal ma nag li may tudd Seydul Xaaji Malik jàpp naa ni rek dafa yóbbaale mag ñëpp ndax mag ñi ko ci nekk bind nga ci yonent bi wax ay jaar-jaaram dalee ci maam borom Touba maam Abdoulaye ñas Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass Baye Khalifa Niass euh, ñëpp rek bind nañ ci yonent bi waaye gannaaw ci Seydul Xaaji Malik ci këram laa tënku moo tax ma indi rek mbindam waaye maa ngi ci jublu yit ne Seydul Xaaji Malik bu waxee waxaaleel nam ñëpp naataangoom yëpp waxaaleel na leen boroom xam-xam yëpp it wuutu na leen waxal leen moo tax Seydul Xaaji Malik nee na moom tànn na ñi wax juróom-ñeenti weer ne moom lañ ko ëmb juróom-ñeenti weer yooyu nag moo gën a wér ci lañ ëmb yonent bi sallallahu alayhi wa balaa ñuy ñëw nag ci ëmb bi ak ya ca xew démb dama leen doon wax ba baaxru yi baaxru yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi sallam jaar na ci baxru baxril nazrati baxril mahabbati baxril rahmati baxril qudrati baxril karamati hmm? buxuur yooyu nga xam ne yonent bi jaar na ci wa fi lbaxril maarifati hmm? wa fi lbaxril shafaati wa baxril hidaayati wa baxril saxaawati wa baxril xikmati yëpp ay buhur la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar na ci mooy ay géej yoo xam ne bam ca jaaree la ca yàlla soxla ci yiw yëpp màng na ko dajale ko ci ay jikko ak i melokaan waaw xam naa pour firil ko ñi nga xam ne ñoom ñooy déglu te dégguñu arab waaw bahrul nazarati mooy géejug xool xool dafa am yu ci nekk waaw fa nazara nazratun ku xool it di nga gis unzuru yooyu yëpp yàlla daf ko wax kon xool dafa am njëriñ yu ci nekk mboolem njëriñ ya ca xool yëpp yonent bi sallallahu alayhi peeg na ko kepp na ko la ca la ca yiw ca la njëkk ak la mujj yépp yonent bi peeg na ko bahrul mahabbati mooy géejug cofeel waaw ah, mahabba mooy mbëggeel wala cofeel boo ci wax ba rek baax na foofit yonent yi anbiyaa u yeeg fa la leen yàlla tànne waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ca yàlla jiital ca ñam ca tànn bahru rahmati mooy géeji yërmande mu yii nag buñ koy tudd ndax mbir balaa nga koy mën a incarner da koy xam moo tax yonent bi yàlla jaarale ko ci géej yi yëpp ba ëllëg ku ci amati problème mu génnee la ci maanaam ku ca bëgg a lab mu làbbali la ndax ku mënul fay doo làbbali kenn waaye ki man fay nag bu gisee koy lab day plonger rek dem fekki ko ni mool yi di def génnee ko moo tax géej yi yëpp yàlla sóob ci yonent bi be ku ca sóobooti boo ca bëggee eh, eh, lab walla nga bëgg ca loru moom mu fekk la foofa xettali la ci ndigalal boromam moo tax bokk na ci wa fi bahri rahmati géejug yërmande yonent bi xuus na ca fa ca gën a kowe moo ca toog bahril qudrati géejug kàttan waaw géejug kàttan xuus na ca mboolem ngéneel ya tamit mu màng ko bahrul karamati géejug teraanga tedd nga moom it xuus na ca nekk ca ba lépp luy teraanga ya ca gën a kawee yépp mu incarné ko bokk na ca baharil maarifati géejug xam xam yàlla ak xam-xam bu mu mën a doon waaye xam yàllaa ca jiitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kuy xam yàlla ci moom nga koy xamee bu dul moom doo xam yàlla kuy xam yàlla rek ci yonent bi nga koy xame moom moo la koy xamal waaye kenn mënul ne bëreet rek ne yàlla maa ngi doo dem fen ni nga xam ne boo bëggee dem ndakaaru fokk nga dugg oto boo bañee oto it fokk nga jël tànk tànk yooyu ngay jël di dox pour dem ndakaar mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam oto ya ngay jël pour dem dox dem Dakar mooy yonent bi sallallahu sa wasallam ku amul tànk bay darngoo na ngay darngoo loolu mooy yonent bi effort ba ngay def yonent bee tax nga mën ko moo tax géejug xam yàlla moom xikma ya ca nekk yëpp yonent bi incarné na ko bahril shafaati géeju ko ràmm boo ëllëgee ñi tiit ñépp amul ku dut tiit ndax nag balaa ngay mën a xettali nit danga koy gën a dal waaye ki tiit nga gën koo tiit doo ko xettali mu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bahru shafaati géeju eh, géej gi nga xam ne mooy géeju ko ràmm yonent bi salaay sallam moom la ko yàlla jox mboolem la ca aju yëpp moo ko incarné mu ne baarul ci géejug njub yonent bi salaay sallam moom la ko yàlla baaxe la ca gën a baax lépp a baax sax waaye ya ci gën a kawe ak fa njub yem combaxtal ga bex nga xam ne boo fa yeggee dootoo réer yonent bi salaay sallam moo ne tong ci kaw ku ñëw mu orienté la moo tax innaka la tahdi ila siratin mustaqim yàllaa ko ko wax de yàlla ne ko innaka naka yow gis nga foofu tuddut sax yonent bi indiwul sax tur bi mu ne ko innaka naka yow la tahdi géñ naa ne di nga jublal ila siratin jëme ci yoon woo xam ne mustaqimin wu ne coow la waaw yonent bi sallallahu alayhi kenn du moom nee na ku bëgg a jub rek toppal yonent bi ku bëgg a jub rek del julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax danañ yooyu yëpp danañ ci ñëw ci kanam mu ne bokk na ci it bahril shaqaawati saxaawati saxaawati bokkul ak saqaawati bii xaaf bële xaaf xaaf la bii xaaf la euh, géejug tabe du noonu la waaw bii tabe lay firi boo ne shaqaawa arab dafa doy waar mooy texeewa di te yonent bi maara day bokkul ci foofu yëpp jegewu fa saxaawa mooy texe mooy mooy tab tabe du noon la oustaz Sidi waaw kañ géejug tabe yonent bi saai sallam moo ca toog ku tabeeti moo la jox ñi tabe yëpp yonent bee leen gën a tabe ba kuy tabeeti sax bu la mayut ak tab doo mën a tabe ku tabe rek ci yonent bi nga ko doon doonnoo moo gën a tabe ñëpp bokk na ca bahril xikmati géeju sagesse mooy xereñ xereñte moom la wolof di wax xereñte tubaab naan sagesse baat boobu boobule ma géej googu salaay sallam moo moo moom la ko yàlla jox moom it mu toog ca bunt ba ku ñëw mu tànq ca la la nga yelloo jox la nga naan wëññeeku ku war a xuus mu ne la xuusal ku war a naan kopp mu ne la naanal kopp ku war a naan ndaa mu ne la naanal ndaa ku ñu war a jox as nguuxit mu jox la ko kenn ku ne la nga yelloo rek moom moo toog ca bunt ba boo ñëwee mu jox la ko looloy buxoor yi mooy géej yi géej yi bokkul ak xudura yi ak euh, kii ni ñu koy waxeeti xijaab yi nga xam ne ay kiiraay la yii yëpp Seydul Haaji Malick moo ko indi oustaz Sidi Ahmed moo ma ko baaxee nii léegi indil ma ko yii yëpp Seydul Haaji Malick moo ko indi ci miimiya kon Maodo nim nim dafa jekk yonent bi waaw ci waxin daf ko xam waaw daf ko xam waaw njàng am na nag ndax Maodo lu mu la wax rek wax na la téere bi mu ko jëlee ak werante téere yi ci am waaye la lay won ne am na may gu ko ci yàlla defal ki xàmmee ba kii lii la wax kii lii la wax kii lii la wax kii lii la wax waaye man Malick bi wér indi wax yëpp ne waaye bii nag moo wér kii corrigé kii corrigé baccalauréat moo raw xale yi muy corrigé ah déet nañ waxante dëgg examen baccalauréat professeur yi nga xam ne ñooy corrigé ñooy corrigé sujet yi xanaa ñoo war a raw élèves yi ah nañ damay laaj rek addina bi yëpp ngeen dimbale ma na xam naa ñu ak may déglu waaye damay laaj baccalauréat élèves yi ko def ba noppi professeur ya koy corrigé xanaa professeur yooyu luñ gàtt gàtta xam-xam ñoo raw élèves yi waaw kon nag da ngeen ciy déggee ne Cheikhul xaaju malik mbaax ak nangu xam-xamu jàmbur te ku nanguwul xam-xamu jàmbur boo tegee sa xam-xam ñu rejeté ko te ku am honnêteté intellectuelle la moom Cheikhul Xaaji Malik honnêteté intellectuelle Maodo def ko am ba mu jeex mbindum jàmbur mum tudd dana wax ne diw la ñaanal ko yàlla door a moo indi lillahi darru alladi qad qaala maadiahu teg ca jazaahu llahu xam nga kooku nëbbul kii laa jëlee xam-xam bi waaye li ma wax léegi nag boo ne Oustaz Sidi Ahmed mbay lii la wax Abdou Aziz Seck lii la wax Ibra Gueye lii la wax Abdou Aziz Diop lii la wax Chérif Ibrahima lii la wax waaye man Malick nag d'accord naa ne bii moo wér bii moo baax kii corriger moo raw ña muy moo tax géej yi xijaab yi bi mu jógee ci géej yi mu wax xijaab yi xijaab yi mooy kiiraay yi dox suñu digganteeg suñu borom kenn xamut nu mu toll waxuma la rek kiiraay yii jotewul ak xaqiqatul muhammadiya dara kiiraay yi nga gis nii joxe joteewul dara ak xaqiqatul muhammadiya yi may tudd si nii te Maodo tudd ko ndax kiiraay yii mu ngi jógee ci xaqiqatul muhammadiya te xaqiqatul muhammadiya boobu anbiyaa yi ngay dégg yépp dalee ca maam aadama bi ci yonent yàlla isa ci xaqiqatul muhammadiya la leen la nàndalee pour nu mën a nekk yonant te ñoom daan dee nañ xaqiqa bi juróom-ñaari géej ndax dégg nga wax bi mu ngi mel ni genn géej am ndakaaru muy géej a amoo kat bi comme fii laa nekk ñu ne la pour nga mën a napp ci géej gi da ngay tëb dama da ngay dem Bargny da ngay dem Rufisque benn dem Bargny dem Sébikotane déedéet nag da ngay dem Rufisque dangay dem dem Diamniadio Diamniadio ak Rufisque bu jiitu waaw kañ waaw kañ ñu ne la géeju amoo gii fi nga war a naanee waaye géej gi courant bi dafa dangereux ba nga xam ne pour nga naan fi da nga koy dànd ni nga koy dàndee pour man caa naan nag da ngay jéggi Rufisque jéggi jam ñaajo jéggi sibi xotaan jéggi puut jéggi eh, ndang eh, nuñ koy waxeeti dem dem déedéet jéggi jéggi puut jéggi Cees jéggi Tiwaawan dem bi pir piir fa ngay toll nag mu door a mën a seet seen géej gi pour mën a naan te da gaaw a naan wala wala nga lab dégg nga wax bi te dangay naan rek dem ndax boo fa toogee di naan da ngay lab yonent yi noonu lañ dàndee xaqiqatul muhammadiya buñ ko doon jege di lakk buñ ko jege woon lu tol ni kawar lakk ni kawar di lakkee ci safara mboolem anbiyaaw yëpp la wax nag dalee ca maam Adama bi ci yonent yàlla Isa xaqiqa bi kenn xamu ca dara ku dut sallallahu alayhi wa sallam ak boromam te xaqiqatul muhammadiya boobu nag xaqiqatul ahmadiya moo ko féetee ko xaqiqatul boobu nag yonent bi ci boppam xamu ca dara yàlla ket kott kott moo ca xam dara moom la den denc pour ëllëg yowmal xiyam teraanga yi gi gis ci àddina awliyaa yi seen kiraama yeeg yonant yi seen may seen xarbaax yi ñu daan def mujiza mujiza mooy xarbaax kiraama wali koy def yonant mujiza lay def mujiza boo mës digg ab yonant def ko kiraama boo mës digg ab wali def ko mu ngi ko jëlee ci xaqiqatul muhammadiya te siinul xaqiqa ba anbiyaaw yi noonu ñu dàndee xaqiqa bi awliyaaw yi dàndee ne ñoom it yi juróom-ñaari yoon ak wali yu bu mën a doon hmm? dàndee nañ ko juróom-ñaari yoon dàndee nañ anbiya yi juróom-ñaari yoon ñi yi daan xaqiqa bi juróom-ñaari yoon juróom-ñaari géej kon yonent bi kenn séenu ko waaw pëndam sax kenn séenu ko ñu dem moo tax Maodo ne xijaab bi njëkk te xijaab yi jotewul ak wax naa la ko léegi jotewul ak xaqiqa ba dara te xijaab yii moo dox suñ digganteeg suñ borom moo dox suñ digganteeg xaqiqa boobu diggante xaqiqa boobu Muhammad ya diggante bu kii ni ñu koy xijaab yi ak xaqiqa ba gis nga ni xijaab yi bare dinañ ko lim léegi noonu la diggante xaqiqa muhammadiya ba mel ak ahmadiya ba te diggante xaqiqatul ahmadiya ak suñ borom jotewul dara ndax ahmadiya bi ci leer ay leer la ko yàlla bind te te du leeram wax naan la yàlla mboolem leer yëpp ba mu ko dajalee benn leer la jëlut bind ci yonent bi salaay sallam te mooy leerug la yi ci des yëpp composition bi mooñee yonent bi ci leer yooyu la moo tax Maodo commencé nag mu ne xijaab bi jéetu yonent bi nekk fa mooy xijaabu qudra kattan suñ borom rek am kàttan géeju kattan googu nag xijaab ba nga xam ne moo dox diggante géej ga yonent bi def na fa fukki junniy at ak ñaar douze mille di sàbbal boromam ban sàbbal la fa doon wax Maodo Maodo yàlla yàllaa ko dimbale Seydul Xaaji Malik nee na yonent bi sallallahu alayhi wa fukki junni at ak ñaar yim def ci xijaab booba doonu fa sabal dara benn baat rek la fa daan wax subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal aala douze mille ans hmm. nañ déglu rek tey mu toj de tey hmm. xam ne yonent bi du moromu kenn douze mille fukki junniy at ak ñaar def na ko fa di sàbbal subhaana rabbiyal aala hmm. bu ñaareel bi muy xijaabu minna minna nu ko olof di waxeeti xéewal fa lillahi l minna waaw fa lillahi wal baraka minna mook baraka ñooy ànd minnatu boobu nag muy géeju muy xijaabu xéewal naa dem rek bu ma ciy taxaw sax day din après dinaa ko ramasser waaw minnatu géejug xéewal maanaam xijaab ba yonent bi toog na fa onze mille ans fukki junni at ak benn lan la fa doon sikkar subhaana aalimil sirri wa axfa bu njëkk bi douze mille ans subhaana tudd naa selluk rabbi ya sama borom bi nga xam ne alaala moo gën a kawe lépp baat boobu fukki junni at ak ñaar la ko wax pour yow mi déglu mu demaat ci bi ma mu tuddaat léegi muy minnatu xéewal lu mu fa doon sàbbal fukki junni at ak benn onze mille ans subhaana tudd naa selluk buur bi nga xam ne aalimi sirri moo xam li li li nëbb wa axfa ak li feeñ kon moom xam na li feeñ ak li nëbb ndax toog na fa sikkar ko ba yàlla xamal ko ko gis nga xijaab yi bu ci nekk diir bi mu fa toog fukki junni at ak ñaar yi douze ba mu ca pare la bëtti xijaab boobu lu fa ne rek yàlla won ko ko xamal ko ko mu door a dugg ci beneen xijaab lépp lu nekk ci biir subhaana rabbiyal aala yàlla xamal na ko ko secret bu ca nekk àdduna ak laaxira yàlla xamal na ko ko mu door a wàcc ci beneen bi waaw kon yonent bi foog mu am xéewal ndax minnatu muy xéewal def na fa fukki junni at ak benn onze mille ans lu fa doon wax subhaana aalimi sirri wa axfa subhaana aalimi sirri wa axfa subhaana tudd naa sellug buur bi nga xam ne aalimi mooy aji xam sirri lu nëbb wa axfa ak lu feeñ lu ne fàng ak lu ne meng moo ko xam boo ko bëggee dégg lépp lu ne fàng yàlla xam na ko lépp lu ne meng yàlla xam na ko te ñaar yooyu rek kat fi ne fàng wala meng rek yonent bi def na fa loolu ñu wax onze mille ans yàlla ubbil ko xijaab boobu mu dugg mu ñëwaat ci beneen xijaab bu ñuy wax izamu wala izamun mooy màggaay mooy màggaay kon yonent bi faw mu màgg lu fa doon wax def na fa dix mille ans fukki junni lan la doon sàbbaal ci foofa subhaana rafiul aala subhaana rafiul aala subhaana rafiul aala subhaana tudd naa sellug buur bi nga xam ne rafi rafiu moo yëkkatiku moom yàlla moom suñu borom te lu yëkkati kooti moo ko yëkkati al aala ku kawe ki ah, mooy yëkkati ku kawe ku ne ndax moom moo kawe mu jóge fa ñëwaat ci bam ba ko sikkaree def fa fukki junni at dix mille yàlla ubbil ko xijaab bi mu wàccaat mu incarné la fa nekk yépp door a wàccaat xam nga ci kaw la jógee di wàcc ndax ci suuf la jëm si mhm. ba muy génn àddina moo tax mu ne bal rafiqal aala ba jógee ci dix milan yi mu wàcc ci neuf mille ans juróom-ñeenti junniy at lan la doon sikkat ak fu mu nekkoon mu ngi ne woon ci xijaab bu ñuy wax raxma wa rahmatullahi waasia yërmande yàlla xijaab boobu yàlla sóob na fa yonent bi ni aarifuuna yi di soobee seen gaa yàlla soob na fa yonent bi lan la doon def ak lan la doon sikkat ci ci xijaab boobu subhaana rabbul ah subhaana raufun rahim moo tax yàlla ne ko bil muminina raufun rahim mu ne tudd naa seetlug subhaana tudd naa seetlug buur bi nga xam ne raufun mooy aji ñewent gi rahim mooy aji yërmande ji ñewent ak yërmande dañ niroo te bokkuñ rauf mooy ñewent rahim mooy yërmande ñewent mooy koo xam ne bëggoo sax lu tàng tege ci loxoom bëggoo sax bopp metti ko bëggoo sax mu ñàkk dépense moo gën a xóot rahim daf koy dal ba noppi nga door koo yërëm ay waaye kii feebar bi metti na yal na ko yàlla saafara rahmaan dugg waaye raouf moom doo bëgg sax lu tàng tege ci loxo waaw moo tax yonent bi kenn mënu ko fay ci ñun bil muminina raufun rahim bu sañoon lu tàng tibb bu tàng sax du tege ci suñ loxo moo tax loolu la doon sikar neuf mille ans juróom-ñeenti junniy at lëmb doon sikar ci géeju yërmande wala xijaab ba subhaana tudd naa selluk buur bi nga xam ne raufun mooy buur bi xam ne dafa am ñewenti ci jaam yi rahimun mooy ki am yërmande ci jaam yi yàlla ubbi xijaab boobu mu wàcc mu incarné la fa nekk yépp mu ñëw ci juróomeel bi <clears throat> ban xijaab la nekkoon xijaabu karamatu mooy ter tedd nga du noonu lañ koy waxee tedd nga tedd nga ak teraanga bokkut de waaw kañ tedd nga mooy sax teraanga nag da gane si mën na ñëw tey dem ëllëg loolay différence bi wolof dafa xóot tedd nga moom dafa sax dàkk ku xes yàlla ku yàlla xes jox tedd nga dootoo torox mukk teraanga nag mën na la ko jox tey suba nga ñàkk ko ñaata millionnaire nga fi gis ñuy yelwaan <laughs> dëgg dëgg la wala du dëgg ñaata milliardaire nga mujj gis yoratuñ dara teraanga leen gane si woon waaye amuñ woon tedd nga suñ sëriñ sii ngay gis nag maam borom Touba Cheikhul Hadji Malick maam Limaamu Laay maam Bu Kunta Njaasaan maam Abdoulaye Niass ak seeni njaboot ñoom ñëpp maam Amari Ndaak Seck tedd nga la leen yàlla jox moo tax bër bu set day gën di rafet di gën di neex ba yowmal xiyaam day gën di rafet di gën di neex ba bés pénc ndax tedd nga la leen yàlla jox teraa nga baax na waaye tedd ngaa ko gën de ku boole ñaar yépp nag baax na wolof mooy yombut moo tax alkaraamatu tedd nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam seydul nee na def na fa juróom-ñetti waaw huit cent mille ans juróom-ñetti junniy at def na ko fa lu mu doon sàbbal foofu subhaana man huwa daa'imun laa yazaalu subhaana man huwa daa'imun laa yazaalu subhaana man huwa daa'imun laa yazaalu loolu la fa doon ci kër subhaana tudd naa sellug buur bi nga xam ne man mooy ka nga xam ne huwa moom daa'imu moo sax dàkk ci nekkam wala yazaalu te du fi deñ mukk du noonu la moom moo sax dàkk suñ borom te du fi jóg mukk hmm? waaw yonent bi sikkar na loolu salaay sallam huit cent mille juróom-ñetti junniy at juróom-ñetti junniy at la ko sikkar yàlla ubbi xijaab ba mu incarné ko mu wàccaat bi mu wàccee mu ngi ñëw ci juróom-benneel bi juróom-benneel bi mu ngi ñëw ci xijaab bu ñuy wax manzilatun wàccuwaay ku amul wàccuwaay doo am barab ku amul wàccuwaay doo am barab barab bi ngay wàcc mooy wàcc sa wàccuwaay ca barab ba mooy géejawaay pour kiy seetaan yow fooy wàcc ci dakaar boo tukkee fooy wàcc boo demee Dakar nga ne géejawaay laay wàcc kër kan kër Sidi mbay Mbaye hmm. wàcc waay pour kii seetaan ak di déglu yow fooy wàcc ci Paris al Élysée ci kan ci président Macron yow fooy wàcc ci Paris quatre-vingt-quinzième kër kan kër Lamine Dieye looloy manzil waaw kañ yonent bi wàccuwaay yi moom nag wàccuwaay yépp bu yàlla dafa am ay wàccuwaay wax naa ko fi keroog buñ lay tarbiye sax pour nga xam yàlla néeg yiñ lay dugal kalafay dugal néeg bu mu yem ngay yem néeg bu mu yem rek ngay yem de <laughs> ah nit mënu laa yóbbu fu mu demut nit mënu laa yóbbu fu mu demut barab bu mu demul mënul la faa yóbbu moo tax léeg-léeg ma ne la bari na koy soow ci mi néegu pomm yàlla yem rek toog <laughs> waaw xéewal gi bari ndax yàlla dafa am am am nu lay ñagee pour nga bañ a yegg ci géej géej yi yëpp ay ñag la pour nga yegg ci pour pour balaa ngaa yegg ci yàlla de yii yëpp ay ñag la yii du palaas wa na ila rabbikal muntaha du palaas ayil intiha waaye wala ayil nihayatu huwa allahu manillah huwa nihayatu yàlla dafa am ay wàccuwaay moo tax nga dégg yonent bi ne anzilu naasa manazilahum waaw salaay salaam ne wàccee leen nit ñi seen wàccuwaay kenn ku ne na ko wàccee wàccuwaayam anzilu naasa manaazilahum waaw yonent bi saai sallam boo gisee mu wax loolu dafa xam wàccuwaay yi kenn ku ne nag mën na laa wàccee sa wàccuwaay moo tax barab boobu nag xijaab boobu yonent bi def na fa sept mille ans waaw huit mille damay samay samay tubaaba xaw a lëj de neuf mille huit mille ans sept mille ans du noon la bu njëkk bi douze mille ans la wax naa ko ba noppi bi ci topp onze mille ans wax naa ko ba noppi bi ci topp dix mille wax naa ko ba beneen bi neuf mille wax naa ko ba noppi beneen bi huit mille ans wax naa ko ba noppi bi ma toll mooy bu sept mille ans bi juróom-ñaari junniy at xijaab ban la ban kiiraay la woon mooy manzilatun wàccuwaay lu mu fa doon sikkar subhaana aalimul xaliimu subhaana tudd naa sellug buur bi nga xam ne alaalimu mooy aji xam ji kenn xamut ku dut yàlla wa maa utitum min al ilmi illa qalilan jaata alxaliimu mooy ku lewet ki xam nga yàlla lewete tax mu bàyyi ñu fi dëgg la walla du dëgg lewete tax mu bàyyi ñu fi ndax ñu ngi def yoo xam ne billaay bu ci sukkandiku woon tukkal na bi mooy walaw yuaxisullahu naasa bi ma kasabu ma taraka ala zahriha min dabba mu teg ca walakin yuaxiruhum ila ajalin musamman suñ borom nee na su ma doon def bu ngeen di def ma def leen lu ngeen def ma def leen ku def ma def la mu ne ji jeexal naa ñi ci kaw suuf ñëpp mu ne waaye dama leen di muñandeku rek ku tuub ma baal na ku dee fekk si ma ma def li ma soob man yàlla moo tax lu fa yonent bi doon sikkar sallallahu alayhi wasallam ci sept mille yi ci wàccuwaay mooy subhaana tudd naa sellug buur bi nga xam ne aalimu moom rekk xam alxalimu mooy ku lewet ki yàlla ubbi kii raay ga xamal ko ya fa nekk yëpp mu incarné ko yaa ngi koy déggee ci waa allama al aadama asmaa kullaha summa aradahum ala almalaikati fa qaala anbiuni bi asmaai haulai in kuntum saadiqin qaala yaa aadamu anbihum bi asmaai haulaai kon yonent bi saai sallam jógee na foofa ci juróom-ñaareeli ci manzilatu léegi nag ñëw na ci sept mila six mila ans na ci sept mille ans ñëw na ci six mille ans six bi kiiraay booba lu fa yonent bi doon sikar sallallahu alayhi wa sallam ak fan la woon hidaayatu njub kiiraayug njub yàlla soobaat ko fa yonent bi daj na lu ne lu ne daj na ko kiiraayug njub yàlla soobaat ko fa ne ko yow malaaka yeeg mbindeef yeeg lu ma bind rek njanaaw yeeg melentaan yeeg kenn ku ne war nga xam ak xam jox ko ko kenn ku ne tolluwaayam ci yow ci man yàlla bu du toon yow doo du ko am kon nag lépp war nga ko sonne bi xam ko moo tax yàlla di ko doon soob di ko naq ci géej yi waaw géejug njub xijaabu njub yonent bi soobu fa def fa six mille ans juróom-benn junni at la fa def lan la doon sikkar ci xijaab boobu subhaana tudd na sellug buur bi nga xam ne zil mulki moom rekk a am nguur al azim gu màgg ga ñi ci des ñëpp nguurantu lañ am moo tax balaa yàgg nga dégg folleeku nañ <laughs> wala dee nañ folleeku ñaar yooyu rek la benn ñu jëlee la fa wala nga dee jeex na yàlla nag du dee du daay moo tax lu fa doon sikkar ca géejug njub ca xijaab ba lum fa doon sikar subhaana tudd naa sellug buur bi nga xam ne zil mulki mooy borom nguur moom dong nga am nguur al azimi nguur gu màgg ga loolu de toog na fa di ko wax six mille ans yàlla ubbi kiiraay ga xamal ko ya fa nekk mu wàccaat bi mu wàccee fu mu ñëw mu ngi ñëw ci kiiraayu nubuwatu gis nga kon mu ngi gën a jege si fiñ fiñ ko fiñ ko soxlaa waaw ak kiiraayu nubuwa yonent bi sax na fa cinq mille ans juróomi téeméeri at juróomi junni at cinq mille ans la fa def lan la doon sikkar subhaana rabbil arshil azim tudd naa sellug buur borom bi nga xam ne tudd naa sellug buur bi nga xam ne rabbil arsh mooy borom arsh al azimi gu màgg ga tudd naa sellug buur bi nga xam ne mooy baram borom arsh gu màgg ga loolu toog na fa di ko wax di ko wax di ko wax di ko wax ba mat cinq mille ans juróomi junni yi at te gis nga at yi yëpp du ci at àddina bi de ci ati yàlla yàlla inna yawman inda rabbika ka alfi sannatin mimma taudun nga un foofa mooy suñ mille ans ñun fii fii yonent bi kon boo ko doon calculer doo ko mën a calculer waaw kañ foofa suñ mille ans mooy seen un an ndax boobu weer ak jant amagut bi muy sikkar yii boobu weer amagut jant amagut moo tax lum fa doon sikkar ci moo tax nubuwa mu incarné ko yàlla ubbi buntu nubuwa moo mooy fi muy yónnee yónnant yi yàlla ubbi buntu ba nag xamal ko dindi kiiraay ya xamal ko la nekk ci nubuwa yëpp mu incarné ko mu wàccat fu jëm si bu juróom ñeent juróom ñu ngi ci woon saamin taasia mu ñëw nag léegi ci juróom ñeenteel bi ñeenti mu ngi fa def ñeenti junni at ñeenti junniy at yi fu mu ko def ci kiiraay bu ñuy wax wa rifatu rifatu waaw rifatu mooy ko kiiraayu ko yëkkatiku def na fa 4000 milan ñeenti junniy at moom sallallahu alayhi wa sallam lan la fa doon sikkar di fa jaamu yàlla subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa na tudd sellug buur bi ñuy wax yàlla wa bihamdihi te maa ngi koy sant wa bihamdihi te moom rek a mat a sant loolu yonent bi nekk na fa 4000 ans ñeenti junniy at di ko wax yàlla dindi kiiraay nga xamal ko la fa nekk mu wàccaat bi mu wàccee fu ñëw mu ngi ñëw ci kiiraayu taa topp taatu topp man ati atiu llaha wa atiu rasul man ataa allaha faqat ataa ar rasul topp topp yonent bi def na fa trois mille xijaabu topp salaay sallam def na fa 3000 ans ñetti junniy at lan la doon si kër foofu subhaana malikul quddus subhaana malikul quddus subhaana malikul quddus subhaana tudd naa sellug buur bi nga xam ne almaliku moom rek kay buur beneen buur amul alquddus moo sell ci nguuram gi waaw loolu def na ko du noonu la def na loolu def na fa ñetti junniy at trois mille ans yàlla ubbi kiiraay ga xamal ko secret yi mu wàccaat bi mu wàccee fu ñëw mu ngi ñëw ci kiiraay gu ñuy wax al mawla mag yëkkatiku mawla benn tey moo gën a foor yëkkatiku mooy dimbali ma kilifa waaw kañ mawla mooy kilifteef wala kilifa pour nekk kilifa booy bu bu la yàlla masalut ci xijaab bi doo mos nekk kilifa ba yowmal am moo tax gis nga yëpp jaaruwaay la pour ñi ko am ñëpp mën ko jëlee ci yonent bi ndax bu ko incarné wutoon kenn du ko mën a am ndax ñi ko am ñëpp ci moom lañ ko jëlee sallallahu alayhi kilifa pour nekk kilifa walla kilifa ci boppam rek yonent bi sallallahu alayhi def na fa deux mille ans ñaari junniy at lan la doon sikkar subhaana alqadimul azali subhaana qadimul subhaana qadimul azali subhaana tudd naa sellu buur bi nga xam ne déedéet qadimu waaw kañ naa sellug buur bi nga xam ne alqadimu mooy ki jiitu booba dara newu fi al azali mooy ki nga xam ne moo fi sax te dootu fi jóg yàllaa fi jiitu lépp ba fi dara amut yàllaa fi ne bu fi lépp jógee it moom rek a fiy nekk sax fi loolu yonent bi toog na fa di ko sikkar sallallahu alayhi wa sallam ñaari junni at deux mille ans door a wàcc nag ñëw ci mu mujj bi ba mu fa yegsee lu mu doon wax ak fan la shafaatu rammu shafaatu du noonu la mooy rammu rammu géejug ramu wala xijaabu rammu yonent bi def na fa mille junni at junni at la fa def mille lum lu mu doon sikkar subhaana malikul qahaar subhaana malikul qahaar subhaana malikul sellug buur bi nga xam ne almaliku moom mooy buur alqahaaru moo not ci nguuram gi mooy limanil mulkul yawma lillahi lwaahidil qahaar moom la boole limanil mulkul yawma mooy baat boobu yàlla di répété ëllëg ba yowmal xiyaam quarante mille ans kenn du tontu mu door a tontul boppam ne ne lillahi lwaahidil qahaar ñeel na buur bi nga xam ne moom moo am puissance su noot ñépp tey kenn waxul moom doo ngay wax shafaatu nag ramm kiiraayu ko ramm bi def na fa mille lan la doon sikkar foofu mooy li wax nii subhaana tudd naa sellug buur bi nga xam ne almaliku moom rokke moom buur alqahaaru moo not ci nguuram gi xijaab yi yëpp nag yonent bi jaar yàlla daf ko doon jaarale ci xijaab yi pour képp koo xam ne yaa ngi mosati dara ci lu jëm ci yàlla ak lu jëm ci mayuk yàlla ak lu jëm ci kiraama ak lu jëm ci mujiza lu mën a doon nga soxla ko bëgg faa dem boo jaarut ci yonent bi doo dem loolu la ci yàlla jublu yonent bi rek mooy muccuwaay wi nga xam ne lu baay lu waay bëgg ci boromam boo fa jaaree am ko kon nag yal nañu yàlla fayal Seydi Hadji waaye yow it jërëjëf yow oustaz Sidi Ahmed waaw ndax boo ko indiwutoon ah du ko tudd tey jërëjëf lii moo tax ma ne la del toog ci sama wet waaw ndax lépp lu mën a doon rek am na ñu la koy fàttali boo ko xamee moo tax yàlla ne fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin wa zakkir fa in nafaati zikra loolu yëpp nag bu ko yàlla waxee pour ñun kenn ku ne mu mën a bàyyi xel ki mu dendal nga xam ne loo xam-xam-xam ki nga dendal mën na laa xamal wala ca la nga xam mën na caa wax loo xamutoon yow ci li nga wax sax ki nga dendal bàyyi ko xel bàyyi goo xam ne li ngay wax mën na caa xam loo xamutoon mu xamal la ko kon ñu ngi yemoon ci fi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama leer gi wàcc na ci ruxumu saydatuna amina muy bésu altine la seydul xaaji malik wax te loolu moo am bi mu wàccee ci ruxumu saydatuna amina dema dimbale foofu it par ñetti weer ay kéemaan la daan gis moom saydatuna amina ndax moo ëmb ki gën ci mbindeef yaakaaru ñëpp moo ko ëmb nee naa moo rëy wërsëg moo rëy cër aminatu bintu wahbin moo rëy cër kenn mësul gis loolu yaakaaru tey ëllëg ki yàlla gën a bëgg ci jaam yi xool la ba seppali la ne yow mii laa koy dënk waaye cër ëpput loolu moo tax ci ngay xam mbonum nit ñi mbonum nit ñi waratul jaaxal kenn ku gis yonent bi nii mu mel ak liñ koy waxal waaye luñ la waxalati nga mën a muñ am na ñu gëm ne yonent bi ndeyam ak baayam duñ demuñ àjjana ba ciy soow ba ciy soow di ci wax lu ne ndax lan ñu ne fekkee wuñ nubuwa gi dina ñëw ci biir waxtaan bi incha allahu fekke wuñ nubuwa gi waaye ñoo jur borom nubuwa gi <laughs> fekke wuñ risaala gi waaye ñoo jur borom risaala gi waaw jeex na jeex na kon nit ñi lu ne la ñuy moo tax daaw rek daaw rek am na ci as yu ci doon soow ba ñaq ma nit ñi dañ repp wala dañuy xaru wala lan la yonent bi ku mën a génnee ndeyam ak baayam biir àjjana ku fay dugg ah mu ngi mel ne nga ne tey damay déloger président Macky Sall dama koy déloger ci palais ci palais bi wala damay dem tey tey tey laa fas yéene déloger Macron ci Élysée wala tey tey tey laa fas yéene déloger tromp Maison Blanche noonu la mel di dana sotti billaay doo yegg waaw ku mën a déloger Seydatuna Amina ak Abdullahi ku leen mën a déloger àjjana ku fay dugg ku fay dugg waaw kañ ñu continuer Seydatuna Amina ëmb na yonent bi ñetti weer yu njëkk yi yonent bi da ko daan yee ci ñetti weer yi bu waree lekk moo koy wax li muy lekk te boobu trois mois la amagu yaay mu ne mu ne ko suba lekkal nangam te luñ la indil bu ko lekk gannaaw loolu luñ la indil bu ko lekk ndax yar sa doom mu ngi commencé ci lekk waaw binta binta ba binet sonko soxnaay ibu na jëlaale moom mi ma sonal witt ci naa waxtaan jigéen bu ëmbee naka la wara a woo pour doom ji mu ëmb yàlla mën ko boole ci doom yu baax yi loolu jigéen rek moo am boobu responsabilité moo tax nag ku ko bëgg sa doom du wax ak yow de ndax loolu yonent bi rek a ko am nekk ci biir di wax nit ki di dégg yonent bi rekk a ko am te dina feeñ waaye yow mi nga xam ne nag ki nga ëmb du wax ak yow da ngay roy comportement yi nga xam ne moom la sayyidatuna aminatu amoon ba mu ëmbee rasulullahi yow nga am yooyu comportement boo amee yooyu comportement rek yàlla dina la dimbale ki ci sa biir yàlla defal la ci sutura waaye lu jiitu nag ñaari ñetti weer yu njëkk yi ñaari weer la am góor gi génn àddina muy Abdullahi moom dafa mel ni rek porteur de voix la woon déposé na ko ci urne bi dem na yoonam yàlla xereñ ndax bu fi toogaatoon nag jéem a takk beneen soxna ñu naan kii ak yonent bi ñoo bokk baay te bokk njaay loolu la yàlla doon bañ ah bu fi toogaat rek dana jéem a takk soxna ndax jigéen ñi rëcc leen yombut sew sew la rëcc leen yombut mën nga baax bi màndu waaye mën nañu la fekk sax takk la ah waaw jox la alal ju dut jeex ndax ba bam ba dara xewut lu ne proposé woon nañ ko ko mu lank kon nag bu takkee soxna toog fi bu boo moytuwul du mucc de dana takk keneen de gis nga yàlla stratégie bi mu tëral naka la yonent bi sallallahu alayhi wasallam sosu rek ñaari weer yi njëkk yi rek pil Abdullahi jógee Makka di dem dëkk bu ñuy wax Abwa seeni mbokk fa newoon te daf daan defaale commerce bu fa demaan day jënd indi jaay buy delluwaat yóbbu lu jóge Makka yóbbul leen ko buy jóge foofa indi lu jóge foofa jaay ko biir Makka comme ni sénégalais yi di def rek ak sénégalais yi jógee fii dem Chine. wala jóge fi dem turki walla dem Dubaï masalan bi muy dem dara dalu ko dara dalu ko mu tàggatoog naa Amina dem naka la yegg abuwa bés bu njëkk bi ñaar ñett sibiru ne ko tàpp bopp buy metti bopp buy métti ca la doxee génn àddina ci dëkk booba ñuy wax abuwa boobu yonent bi sallallahu alayhi mu ngi am ñaari weer ci biir yaayam waaw loo ciy dégge danaa ci ñëw ca kanam bi mu amee ñetti weer yu njëkk yi wax naa la ne ci la koy yonent bi saai daan wax ne yaay boo xëyee bu lekk lii ak lii ak lii lekkal lii te lekk guñ la mën a indil bu ko lekk sayyidatuna Amina di di dégg loo ciy déggee foofu ku téye woon làmmiñam la lu ko yonent bi mos a wax mosu ko nettali lu dul benn bés mooy keroog bi muy dem di di di di wasini ñetti weer yu njëkk yi yan yonente ñëw takk nga ko acca yoon ci yàlla aadama déglu leen te Seydi Hadji moo ko wax ca miimiya dama maîtriser wul miimiya te moom maîtriser na ci lu bari wala lépp sax foofu moo tax ñetti weer yu njëkk yi ku ñëw astafirullah premier weer maanaam premier weer ba neuf weer weer bu ci ne day am yonent bu ñëw ndokkeel sayyidatuna Amina weer wu ci ne day am yonent bu ñëw ndokkeel sayyidatuna Amina ne koy soxna si mu ne mu ne ko man maay yonent yàlla sàngam xam nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko nanga noppi de waaye bul tas suñu yaakaar kii nga ëmb mooy yaakaaru tey ak ëllëg soo tasee suñu yaakaar nag ah yàgg yàlla dal di dem ne ko maa ngi koy ziyaare te dara xewul Seydi Hadji Malick ne na weer wu njëkk yi maam Adama ñëw ba mu ñëwee lum wax ndax nettali na ko wacca Maodo Maodo Maodo bari xam-xam Maodo daal doo xam lan la yal na ñu ko yàlla fayal mu ne lu mu wax nee na maam Adama benn baat rek la ko wax bi mu ñëwee baarakallahu fi awwalina wal axirina yal na yàlla barkeel kii nga xam ne moo gën ci ñi njëkk ak ci ñu mujj noonu nga koy firee pour dégg ko daldi dem ñaareeli weer bi pour ñu waaxu tuuti ci yàlla siisa gis nga li ma doon wax démb suñ mag ñi ñoo baax wala bàyyi suñ haadi Touré mii siisa lañ ko tuddee yoon yont yàlla siisa moo ñëw lum wax ne ko aminatu bintu wahbin mu ne ko la labbayka mu ne ko xam nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko man maay siisa yont yàlla siisa dama ñëw di la ndokkeel si ki nga xam ne hmm? aca jëlal micro bi mooy sangu arab ak làkkat jëlal micro bi pour ñu dégg ñëpp lay déglu moo tax mu ne ko kii nga ëmb mooy sangu arab yi ak ajam yi ajam mooy képp kuy làkk-làkk bu mën a doon ci àddina bi moo xam chinois la cong cong cong cong yëpp yëpp yëpp ci la bokk làkk bu mën a doon ci àddina bi nit di ko làkk loolu la ko maam siisu wax ne ko xam nga lu tax siisu mooy yoroon méccim làng yëpp maam aadama moom la sëñ Babacar si woy bu leen waaye ndokk sax waykat yi nekkuñ fi tey moom la sëñ Babacar si wax ne junniy métier doy na sonoy doom ca maam maam Adama bi muy dem bi muy waaj a génn àddina dafa woo doomam yi comme diggante doom ak sët mille la ci amoon gis na leen mille diggante doom ak sët mille ñépp mu woo leen kenn ku ne mu jox la benn métier ne la góor ci mooy yii am tey ci àddina bi yëpp ñii mu jox leen ñaar ñii mu booleel leen ñett siisu mii nag lépp luy làng moom la ko yàlla joxoon mu incarné ko moo tax mu ne ko yaay sangu ajam ak arab yaay sangu arab yi ak ajam yi dal di ne Aminatu ah soyez sérieuse de sérieux de sérieusal de suñu yaakaaran ci sa biir bi daldi lem dem ñetteeli weer bi ku ñëw idris yont yàlla idris mm-hmm. ma ca àjjana moo ñëw mm-hmm. ndokkeel ko mm-hmm. nuyu ko ne ko sama borom ak nañ lay nuyu lu ko wax baarakallahu xayrul xayrul ne ko baaraka yàlla na na barkeel na alamin a ngi nii kii mooy gën ci bindeef kii mooy gën ci mbindeef dal di dem ku ñëw ñeenteel bi yontu yàlla Huud moo ñëw lan la wax sayid sayid sayidina muhammad sayid sayidil mustafaahu astafaahu fil alamina ah, astafaahu fil alamina mu ñëw ne ko maa ngi lay nuyu sama borom a ngi lay nuyu maa ngi lay jottali nuyoo malaaka yépp nee nañu yaa ëmb ki nga xam ne yàllaa ko tànn muy sang bi yàlla tànn lu ci tege ci aalam mboolem monde yi awaalim yëpp la mu ne astafaahu tànn na ko fil aalam ci monde bii ñu nekk ak yeneen i monde kon nag maa ngi la ciy ndokkeel dal di dem juróomeewi weer bi ku ñëw summa zabihu jaa ah, zabihu maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam boo gisee ñu ne zabihu Maodo mën a woy tur walay bañ a indi zabihu du du ma ah, déedéet ah, ibrahim lu tax ñu tuddee ko zabihu lam bëggoon a rendi ismail nañ tuddee yoon ci yàlla ci yàlla yunus zal nuuni borom jën wa zabihu ñëw maam ibrahima lu mu wax tabarakallahu mustafa moom benn baat rek ko la ko wax aminatu bintu wahbin mu ne ko labbayki mu ne ko kii nga ëmb nag may maamam te xam nga ne sët day bëgg maam maay maamam de defal ndànk de kii nga ëmb moom mooy xalil xalil xalil moom mooy ki nga xamante ne sell du xalil la ko wax waaw kañ mu ne ko kii nga ëmb nag bu ñépp sellee ba pare ci selleteem lañ ko jëlee kii moo sell ba ku sell ci ci moom lay sellee maam Ibrahima loolu la ko wax dal di ne ko ndokk sa bakkan dem juróom-benneeli weer bi ku ñëw. kalimullahi yoon ci yàlla Moussa gis nga moom it idaafaal nañ ko kalimullahi wa kallama muusa Moussa takliman jaata yàlla nee na maa daan wax yoon ci yàlla Moussa wax ju dul dog amul intermédiaire yonti yàlla Moussa ñëw ne ko asalaamu aleyki aminatu bintu wahbin mu ne ah, mu ne ko man xam nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko maay Moussa kalimullahi looy ut mu ne ko kii laay ndokkeel si lum ko wax mu ne ko barakallahu sayyidi fi zahriki mu ne ko maa ngi lay wax ne yàlla barkel na sama sang bii nga xam ne yaa ko ëmb tey mhm. sama moom sama sang la wax de xam nga lu tax yaa ngi koy déggee ci rañaan nga yoon ci yàlla yoon ci yàlla muhammad salaay salaam ba muy rañaan dafa romb maam ibrahima bi mu demee bay del siwaat dafa romb maam ibrahima Moussa la doon waxal moo ko doon wax dellul ñu wàññil la julli gi mm-hmm. waaw kay continuel ba yoon ci yàlla Moussa waxee loolu nag dal di dem kilmatuhu euh, juróom benneeli juróom ñaareeli yonent bi ñëw ci juróom ñaareeli weer bi kan la yont yàlla yunus borom jën wa lu mu ko wax waaw ah, kañ mm-hmm. ah na nga ko xool <laughs> ah. ah, waaw ko woon waaye na ko xool bu ñëwee àllarba ñu ñu dabaatal ko waaw mm-hmm. yont yàlla mm-hmm. yunus moo ñëw ndokkeel ko wax ko li mu ko wax dañ ko wax àllarba incha allah dal di dem juróom-ñetteeri weer bi ku ñëw waaw kañ seytaane dugg na ci waaye <laughs> ñun ñëpp danañ ko waxaat noonu lañ ko toppee ba juróom-ñeenteeli weer bi ba juróom-ñeenteeli weer bi mm-hmm. yonti yàlla isa dooru ñëw yonti yàlla isa moo ñëw juróom-ñeenteeli weer bi mu ñëwee lu mu ko wax ndokkale kii nga ëmb yàlla wax na ma ko démb ca kaw moo tax inni ubashirukum bi rasulin yaatiya min baadi ismuhu ahmadu mu ne ko kii nga ëmb mooy sangu àdduna ak laaxira ndokkeel ko ne ko sama borom a nga lay ndokkeel daldi dem kon juróom-ñeenti weer yi mat na bi juróom-ñeenti weer yi matee waaye am na yeneen yii ndokkeel yi la anbiyaaw yi ko doon ndokkeel waaye weer wu ci ne wala ñetti weer yu ne am na yuy xew yoo xam ne aminatu bintu wax bin daf koy gis di ko dégg bokkul ak malaaka yi ñëw di ko ndokkeel ak waa àjjana yi doon ñëw urul ay nii di ko ndokkeel yooyu yëpp gannaaw yonent yi biñ ndokkeele uru ay na yi tamit yaa yàlla bind ci àjjana dañ doon ñëw di ko ndokkeel ànd ak asiyatu bi na doon denc moo tax yonent bi wax ci xadis ne asiyatu ci sama soxna yi la bokk maryama ci sama soxna yi la bokk mu yaay yonent yàlla isa moo tax nag ñoom ñëpp dañ doon ñëw di ko ndokkeel waa àjjana malaaka yi di ñëw di ko ndokkeel jibril mikail asrafil azrail waaw soxna si moo rëy may kii moo rëy may wax naa la ne ñetti weer yu njëkk yi ñu continuer ñetti weer yu njëkk yi yonent bi da ko daan def pëkk-pëkk yaay mu ne ko la béyka mu ne ko bu subaa lekkal sa lekk sangam ak luñ la mën a indil bu ko lekk boo naan it naanal ci ndox sangam xam nga lu mu ko doon tereloo lu mu ko doon moytuloo mu lekk lu xaraam wala mu naan lu xaraam ñetti yëpp li mu sëñ koy wax loo ciy déggee yow doom yow mi ëmb tey jigéen bul def loo jot lekk rawati nag ñu baal ma de ñiy lekk kew kew kew xam nañ seen bopp xam naa ñuy lekk kew te ñu ngi may déglu nañ bàyyi kew kew baaxut waaw nañ bàyyi kew kew baaxut kew baaxut kew baaxut boo ëmbee du lu la neex nga lekk ko loolooy ñetti weer yu njëkk yi yeneen ñetti weer yi ci topp mooy lan du juróom benni weer yonent bi sallallahu alayhi fu yaayam daan dem ngir doxantu fu daan dem ngir dox mbokk yonent bee koy gide buy soxna si di jóg rek yonent bee ko naan yaay jaaral mbedd mi ndax seytaane ngi ci mbedd male yaay jàddal fii ndax am na ñuy jëw ñu nekk fële yaay jaaral fii yaay jaaral fii yaay jaaral fii ba mu dem ba mu yegg fi muy dem buy wàññee ko it kazalika ci juróom benni weer yooyu sayyidatuna Amina xëy na bés di dem di rooti ca teen ba yonent bi ne ko bàyyil ba nit ñi jóge fa ndax jëw ya bàyyil ba nit ñi jógee ca teen ba ndax dañ fa nekk di jëw bi mu demee ba xam ne kenn nekkul ci teen ba mu ne ko yaay jógal nga dem kenn kenn nekkul ca teen ba mu dem root paanam ba mu fees mënu koo yenn boppam yonent bi génn ci biiram ne ko yaay bàyyil ma yenn la te bu ko wax kenn <laughs> yëpp Maodo indi na ko ci miimi ya pour ñu ba pour ñu bañ a foog ne man dama fi nekk rek di rek wala di yonent bi saay sallam loo ko waxal lu dul yàlla la rek am na lu des seyduna muhammad saay sallam ci boppam moo génn ci biiram ne ko yaay bàyyil ma yen la yen ko paan bi dellu nekkaat ci biiram ci juróom benn weer yi ak ya ca xew juróom-ñaar juróom weer bu mujj bi nag foofu la uro ay na yi daan ñëwee kii mooy suñ borom kër ca ajjanakat na nga def ndànk ci moom de délégation bu njëkk bi ñu ngi ànd ak asiyatu délégation ñaareel bi ñu ngi ànd ak mariama ñaari délégation lañ def ñëw seet si yonent bi ne ko ñu ngi lay ndokkeel ci ki nekk ci sa biir bi te nekk suñu borom kër ëllëg ca ajjana ñaanal ko yàlla dal di dem ba fajar altine quatre heures du matin yonent bi ne ko pëkk pëkk ne ko yaay mu ne ko bu jant bi di waaje a génn rek jubaleel kër safaatu kër safa du noonu la jubaleel kër safa mu ne ko lu xew mu ne ko tey laay gane àddina <laughs> loolu kenn mësu ko dégg waaw tey laay gane àddina tey Sayyidatuna na ne ko ah man yëguma li jigéen di yëg mat mat mat yëguma mat mu ne ko waaye yaay li ma la wax du deñ kii wax ak man ne na ma tey laay juddu nanga dem ca safa safa ah heure bi jot moo tax yonent bi judduwul bëccëg judduwul guddi du noonu la ndax bu juddu woon guddi guddi tiitaroo ko bu juddu woon bëccëg bëccëg tiitaroo ko mat wi mu ngi am ci guddi gi waaye juddi gi mu ngi am ci fajar gi <laughs> te mat wi borom yëgu ko aminatu bintu wax bi ñëw ci safa safa moo doon sage-femme bi te xoolal tur wi safa shifa ah, moo tax tur am na solo de wala mboo nga ne safa safa atu rammu mën nga ko tuddee rammu mën nga ko tuddee saafara bu la ci neex bu dee saafara mooy saafara ñi feebar bu dee ramm mooy ramm ñii am doom di leen dimbale ba seen doom mucc bañ mucc seen doom du noonu te te kii ñëw nag mooy aji ramm ji moom faf kii ñëw nag mooy aji ramm ji bi mu ñëwee ci safaa rek safaa ko lu xew mu ne ko damay matu damay am si doom safaa ko dugal ci néeg bi fi mu daan rawlee mu ñëw xool ko ne ko soxna si yow awma benn trasu mat matu woo dama tee ngaa ñibbi ba ci kanam nga ñëwaat gisuma benn trace buy wane ne da nga war a am doom tey saxaane ko ah dinaa wax ak yow nag mu ne ko loo wax ak mu yow mu ne ko bu ko kenn yëg waaye gone gii ci sama biir premier weer ba fii ma toog di wax ak yow deme tànk bi may seqi ñëw fii dañul di wax ak man te lu ma mos a wax gis naa ko moo ma wax ne naa ñëw day juddu tey safaa ne ko ah man de gisuma ci yow trasu mat kon nag mën nga dem na le ba mat wi jeqi safaa nee na fi mu ne mën nga dem na rek ba écarté wu moom safaa sayyidatuna aminatu nee na fi mu ne mën nga dem na le xaar ba mat wi jeqi dal di écarté wu picc mu tol ni pitax Aminatu bintu wax bin mooy wax de mu ne ci laa gis mel ni pitax picc mu tol ni pitax ñëw naaw tiim ma mu ne bi ma nee xifeet xool ko mu jël laaf benn laafu ndeyjooram wi teg ko ci mu jël laafu càmmoñam wi teg ko ci sama ndong boole ko raay wàcce ndekete mooy mooy sànke bi mooy prava bi gis nga wax bi sànke xam ngeen sànke du prava lañ koy wax waaw kay ndekete boobu mu ngi koy iir pour mu bañ a gis yonent bi nee na bi mu wàccee laa fii rek ma yëg mu mel ni dañoo xotti sama biir bi muy césarienne moom fi nit di jaar jaaru fa mu ne bi bi bi pitax mi defee noonu rek dama yëg mu mel ni sama biir bi dañ ko xotti dañ ko lañset mu ne waaye yëg bu ndaw la rek mu ne ci laa yëg rek gis ne yonent bi toog la mu ne mu ne picc mi yëkkati laafam mu ne bi mu demee rek ma gis yonent bi salaay salaam toog toog ñii ne dafa ferañ ko ñii ne toog toog yi ni kuy julli bu ci Maodo wax moom Maodo bii la wax am na ñu ne dafa ferañ ko laay waaye Maodo nee ne déedéet toog ni kuy julli la toog jël baaraam ba sàbbal ko jubale ko bu kow mel ni kuy tasbiya lu mu doon wax di sàbbal borom naan tudd naa buur bi nga xam ne moo kowe te mu ngi door a juddu tudd naa buur bi nga xam ne moo kowe tudd naa buur bi nga xam ne moom rekk a kowe yëkkati baaraam ba ca des bu bu mag bi sex ko sa turandoo da baax fa la ko jële yëkkati baaraam bu mag ba sex ko Aminatu bintu wax bi nee na ma gis meew di génn bi yooyu yëpp xewee la safaatu ñëw la safaa ñëw rek fekk ko yonent bi toog mu ne ko ki lu xew mu ne ko ah ñoo ko gisandoo ñoo ko gisandoo mu yëkkati ko fekk dugal nañ ko néegu góor ba noppi moom salaay sallam noonu la judduwaale dugal nañ ko néegu góor ba noppi ñu ngi ko tusngal ba bët yi lépp amul benn tras buy wone ni kii judd na ci biir la jóge deret topp ko si biir topp ko dara topp ko dafa set wecc leer nañ karaw gi di biriyee dara topp ko amul lenn lenn loolu bañ ko jëlee daal dañ ko laxas rek jox ko ndeyam mu mel ni kuñ sang te ku fi judd ku dut moom kat lenqali nañ la ci ndox door laa jox sa yaay safaatu noonu la ci safaa noonu la ci yem bi safaa ñëwee daal yem ci loolu jël laytaay yi la ëm laxas ko jox ko ndeyam mu wëññeeku li mooy juddoom ku juddoo nii nag wax leen ma kon ni mu juddoo amul benn mbindeef bu ko juddoo niñ ko ëmbee amul benn mbindeef buñ ko ëmbee ya ca xew amul kenn kum xew ci sa ëmb kon bokkul ak kenn waa mooy wane ne bokk la kenn ci lenn nag du ci dara lu mu bokk ak nit ñi Seydil Hadji Malick nee na bam demee xam naa nuñ ko nampalee ak lu xew soxna si dem kon juddu na tey altine talaata àllarba alxames àjjuma samedi dimanche altine altine tey la judd talaata dangay bàyyi altine ji talaata àllarba alxames àjjuma samedi dimanche altine muy juróom-ñaari fan ñu war koo tudd te baayam newu fi maamam a fi nekk maamam sax eh, maamam bi fi nekk daanaka amu ci droit bay taxam yi fi nekk amuñ ci droit te baayam joxewul tur bi muy faatu kon ku ko war a tudd ñu daje. Maodo ne xam naa nuñ def ba tudd ko <laughs> te baati Muhammad amutoon nii ñu ko tuddee xamuñ ko woon ci benn maamam am na wala amut xamuñ ko ci benn maamam xamuñ ko ci benn xamuñ ci ko ci fenn xamuñ ko ci dara ñu ne niñ koy tuddee ku génnee tur wa lu Maodo wax waaw kañ aminatu bintu wax bin moo jékki-jékki bi mu desee ay fan mu am baat guddi gu jot am baat bu dégg muy wax naan ko kii bu juddoo na ko tuddee Muhammad de bu juddoo na ko tuddee Muhammad baat boobu saa bu ne day ñëw ci moom di ko ko fàttali bi mag ñi dajee nag mu ne leen ah dinaa leen wax leen de ne ko ah, mu ne ah am na baat bu ma daan dégg mun mu ne bu juddoo nañ ko tuddee muhammad ñu ne kon samaytuhu muhammad sallallahu alayhi wa sallam du noonu la mu ne kon nañ koy muhammad Seydi Hadj Malick ne ña ko tudd xam naa leen nuñ ko tuddee xam naa leen man xar lañ ko reyal xam naa xar ma yooyu ñu continuer détail yëpp Seydi Hadj Malick indi na ko ñaataa nekkoon ca biir néeg ba bañ ko tuddee ba noppi ku fa mujj ak wan ween la ko sayyidatuna Amina njëkk a jox mu ne weenu ndeyjoor walla ko jox mu ne ñetti yoon la ca muucu bàyyi ndax dara mosul weesu ñett sallallahu alayhi dara mosul weesu ñett ween wi bu ko ko joxee bu xëccee benn xëccaat ñaar xëccaat ñett yàbbi ween wi su ko joxee bii bëgg ko jox bii mu bañ su nampee ci bii bu bëggaatee namp rek la koy jox bii waaye du ko jox bii comme ni jigéen ñi di def yéen nag jigéen ñi def leen ko yéen <laughs> seen doom yi duñ yonent bi de bàyyi leen leen ñu xecc bàyyi leen leen ñu namp bàyyi leen leen ñu namp ba suur du ñu yonent bi de bu ko joxee bii bu xëccee ñetti yoon bu ko joxee bii mu bañ mu gi mu di ko awante su ko joxee bii bu ci xëccee ñett bu bëggaatee mu jox ko bii mu xëcc ñett lu nit di màgg weer semaine la koy màgg moom du loolu la Maodo wax de damay bañ waaw kañ dimbale ma de ndax yoruma téere bi te téyewuma ko se Seydul Xaaji Malik nee na lu nit di màgg ci semaine ci weer yonent bi ci semaine la koy màgg mu ne lu muy lu nit di màgg ci ci ci ci weer nag yonent bi at la koy màgg maanaam li nit di màgg ci at yonent bi ci weer la koy màgg mu des nag bam juddoo ya foofu am na lu ma lu ma ci jël bam ji bés bi yonent bi juddoo bés boobu lépp lu foroxoon dafa saf suukar géej gi boo ci tànkee du saf xorom benn rab mbëkkul moroomu rabam benn jiit màttul kenn dara xewut lu dul jàmm keroog bi yonent bi juddoo jàmm rekk a xew gaynde fàddul till bukki lekkut dara garab yi weexoon sax dañu neex garab yi foroxoon dañu neex ndax ganek yonent bi sallallahu alayhi wasallam xërëm ya woon ca Kaaba ga ñu gis leen ñuy daanu seen seen xàmb yiñ fa tegoon xàmb yi di di exploser ñu ne kon am na lu xew ñu ne Aminatu binti wax moo moo am doom biig Iblis ci la njëkk a yuuxu waran na du noonu la Maodo wax de ah, kañ ci la Iblis njëkk a yuuxu ne sama yaakaar tas na kii bu ñëwee sama yelwaan këpp ndax xeet wu bari bàkkaar lay tombeel xeet wu mën a tooñ lay tombel waaye wa rabbun xafuur buur bu mën a jéggale moom lañ moom la ñuy tombeel ndax kii kii daal këpp na sama yelwaan yuuxu Seydi Hadji ne ba ibliis di yuuxu maa ngi koy dégg yooyu xew ci diggante bi ak yeneen i mujiza yoo xam ne ak i xew na keroog bi yonent bi juddoo fi yonent bi juddoo bés boobu weer ak jant fóonante nañ ci lu masul am weer ak jant sax fóonante nañ ndax kontaan bés bi yonent bi juddoo bés boobu safara ci boppam safara ci boppam may lakke dafa bég ci juddug yonent bi bi yonent bi ganee àddina nag ci façon yooyu le ak kiraama ak mujiza yooyu ci xew yépp lu nit di màgg ci weer mu màgg ko ci semaine lu nit di màgg ci at mu màgg ko ci weer mu des nag bàyyi daje muy Abu Taalib ndax bàyyi la ci moom moo jur Seydina Ali ñu daje ñoom baayam yooyu yëpp ne kii suñu doomu frère la waaye am na lu xew am na lu ma jël waaw kay noonu la am na lu ma jël bi mu jógee ci safa sage-femme bi ba yegg si ci këram tëral liir bi dugg ci wanag wi di waaj ñëw fekkatu fi liir bi moom moom Seydatuna Amina fi mu tëral liir bi dugg ci wanag wi ne xaaral ma yeesal njàpp ñëw fekkatu fa liir ba mu xool xool gisu ko mu génn dem ci baayam yu ndaw yi ne leen ana liir bi ku ko fi jël rekk ñu jël seeni jaar fu ne ñu dugg fa ci dëkk ci ci néeg yi ruq yi gisuñu ko Abu Taalib ci boppam moo ñëw poñe Sayyidatuna Amina ne ko fu mu dugg dinga ko génnee suñ freer du dem bàyyi fi ëmb ëmb boobu nga bëgg ko sàkkal pexe doom ji judd na ñun ñëpp yëg nañ ne doom ji judd na xam nga lu xew na génn walla ñu rey la aminatu nee na bi ma nee yalax laa dégg benn baat mu naan bàyyi leen ko du ngeen jot ci liir bi te waa àjjana pare wuñ ci moom <laughs> kenn du yonent bi waaw aminatu bunti wax bi nee na ci laa dégg benn baat mu naan bàyyi leen ko bàyyi leen ko liir bi du ngeen ci jot mukk te waa àjjana pare wuñ ci ndax dañuy bànneexu ndekete jibril jël na ko yóbbu ko àjjana pour visiter loo ko àjjana ak mu barkeel àjjana moom ci boppam mu ne bi mu amee ab diir am na ñu ne trois heures de temps am ñu ne six heures de temps xam nga lu mu ci mën a am rek bari na waaye Maodo nee na trois heures de temps la ñetti waxtu kenn xamut fu liir bi nekk mu ne ñu jékki-jékki rek gis ñu indiwaat ko ci la bàyyi daje nag ne kii suñ ci sàkkul pexe ma ñëw ci abo abo lahab nag keroog bi saydatun li muy bon bon bon abu lahab bokk ak yónnent bàyyi yónnent bi abdoulaye benn bàyyi bi yónnent bi gënee àddina moom mu ngi ko fekk ci kaaba gi mu toog benn jaamam ñëw ni ko papa papa mu ne ko mu ne ko Aminatu bintu wax bi ne am na doom bu góor mu ne ko yow de bég naa ba goreel naa la yow moom bi ñu yónnee yónent bi rek la ko bañ waaye bi mu juddoo ak koo bëggoon daf ko ne yow de goreel naa la yow mi ma indil xibaar bi goreel naa la waaye lu nekk sa néeg yóbbul may naa la ko ndax xibaar bi nga ma indil sama frère bi dem sama frère bi dem moo am doom doom ja di góor xam nga ñoom góor rek lañ bëggoon doom bu góor rek lañ bëggoon ci kaw suuf buñ masa moo tax bu seen aada yu bon yooyu buñ masaan am doom bu jigéen gas ko suul waaw kañ bi liir bi ñëwaatee nag bi ci waa na pare bi liir bi ñëw ah bay taxam yi mooy baayam yu ndaw yi daje ne suñu freer bii du fi jóge barki démb ñuy sàgganee doomam xale bii daal nañ ko toppatoo ndax bi mu fi ganee àddina ak yi fi xew ni ñu xamee mooy yónnantëb mujjub jamono mag ña fiir nag ca lañ commencé di fiir wala di fiir xale buy door a juddu keroog bi abi lahab déggee nag ne mooy yónnantëb mujjub jamono keroog la ñàkk jàmm mu bokkoon ci aaday arab suñ amee doom dañ koy yóbbu ca kaw ga mu yaroo fa at ñaari at wala ñetti at ndax bu njëkk nitu kow dañ am ay valeur léegi sax am na ba léegi waaye wàññeeku na lu baree baree bare bu njëkk nitu kaw day am valeur valeur bi jiitu woon ci nitu kaw mooy nitu ko àll du fen daawuñu fen nitu àll daaw ñu sàcc nitu àll daawul iñaan nitu àll daawul ñiba njaalo yooyu yëpp xamuñ ko woon ñu ne comme màkk capital la nag xale bu fi juddoo bu ci yàlla dugalul loxo mën na bañ a mel niñ bëgg moo tax ñu daan jël seen doom yi di leen yóbbu ca baadiya ba ca kaw ga ñu fay nampee looloo indi namp yi waaye du yonent bi dañ ko doon rawale déedéet ñoom seen aada la woon ku juddu rek ñu yóbbu la ci kaw gi nga def fa ñaari at nampee fa dañuy fay nag ka lay nampal alxuraan moom la indi xanaa xamoo sa soxna bu ëmbee bu ko neexee mu ne la danga may fay ngeen wax ba juboo danga ko war a fay ci nampal bi ak ëmb bi bu ëmbee ba am doom waaw nampal bi yàlla wax na ci alxuraan ne danga ko war a fay moo tax del jënd ay sandis boo fayuti del jënd sandis ah, di ko neexal ah yow Ibou Sonko kañ bi laaj laaj bi bi bokk na ci ñi ko demande woon bareel jënd hamburger bareel jënd sandis bareel jënd pomme ak orange coca cola waaw lu mu soxla rek nga taxaw ca lu mu soxla rek nga taxaw ca te bañ muy mer jigéen fi mu ëmbee bi fi muy amee doom warut a mer day wàññi doom ji day def effet ci doom ji day def taasir ci doom ji waroo xuloog moom it su ngeen xuloo da koy dégg li nga xam ne moom la Aminatu bintu wax bi li ko yonent bi sallallahu alayhi wax ne ko yaay bul toog fii ndax ñi ay jëwkat lañ déggee ci yow binet ba déggee ci ne boo ëmbee moytul écran télévision bi yenn film yi bu ko seetaan ak keneen kum mën a doon soo ëmbee tey jullit bu jigéen moytul écran télévision bi pecc mu bari mi bu ko seetaan film yu bon bu ko seetaan film yu raglu yi bu ko seetaan ndax doom ji bu day day def réaction ci biir bi loo def rek daf koy def moo tax léeg-léeg entre parenthèse dama koy wax toujours dama naan xale yi pecc mu metti mii ci seen biir yi yaay lañ ko jànge door du judd ñii ñu mën a feccee nii ci seen biir yaay yi lañ ko jàngee door a ñib door a juddu ndax dangay jur doom suba ba jant bi so yaa ngi jàkkarlook écran télévision bi musique suba musique ngoon musique suba musique ngoon ah bu juddoo mën a fecc bu mu la jaaxal ah sama sët bii ci suuf rek rakku ma amale nee na nee na mama male ci amin mama sonko bale Fabinta Wade sonko bale rakkam alsaan atumaan male lay bañ a gis buy gis atumaan ci kër gi rek commencé allah allah allah di jaayu parce que loolu lay dégg ci kër gi man nag nee naa leen allah ji jaaxaluma waaye jaayu bi fu mu ko jële parce que du yëg ci kaw ba gis ni ñuy xadara kon li may wax a ngi noonu du yéeg ci kaw ah, xale buy door a judd ren am at te ba mu ma ne wax ba tey allah allah rek la buy seet atumaan moo ci moo raw te atumaan mooy ubbi zawiya bi pour won leen xale ma wax ci beneen bu gën a garaaw Cheikh Ñang bii yore sama doom bi di ko jàngal Mouhamed doomam yi gën a tuuti amaguñ sa juróomi ñetti at ñeenti at juróomi at buñ la waxee saar buñ toll doo ko gëm sëtam yi sëtam yi nga xam ne amaguñ sax juróomi at buñ la waxee saar yiñ toll dama leen di bañ a catu yàlla bu mal seen la sama làmmeñ yàlla bu mu leen topp buñ la waxee saar yiñ toll doo ko gëm te amaguñ juróomi at parce que lan la kër ga daara la daara internat la alxuraan la ñuy xëy di dégg ba jant bi so amul musique amul dala mais buñ mokkalul alxuraan dem safara parce loolu lañ xam loolu lañ xam déggoo li ma wax léegi kii ci kër gi nee naa leen allah ji jaaxalu ma ndax micro yi foo toll di dégg waaye jaayu bee ma jaaxal nag fu mu ko jële wallahi te li may wax du jaaxaan nii la te noonu la ñuy sikare kon yow jigéen soo ëmbee wattandikul sa bopp ci fi ngay toog ci fi ngay dem ci ñi ngay àndal ci li ngay wax yow mi ëmb nag yaa ngi may dégg yow mi ëmb yaa ngi may dégg yaa ngi may gisit col ko yu bon yi sax da nga ko war a wattandiku di sol lu yiw di lekk lu lew di toog ak ñu toogu di ànd ak ñu àndu di wax lu waxu di def lu defu kay sa borom kërit nay fexe di la jox dépense bu lew bañ di tàngal sa xol di la neexal bañ di ko yow bu doom ji juddoo rek li li muy njëkk am mooy intelligence intelligence lay njëkk a am mooy yeewu ak yeewute ah aywa ñu dem balaa ñuy taxaw kon waaw ci la bokk parce que nit ñee koy demande waaw su ko defee aywa yonent bi noonu la ko yaayam doon guidé waaye yow comme sa doom ji ci sa biir bi du la gidee nag gideel sa bopp ci yonent bi wax na la fooy jaar royal sayyidatuna Aminatu ci comportement yam amoon roy ko ci ba lor sa doom doom ji yoonam newu ci nu mel yow la ndax yonent bi nee na doom bu juddoo sell na ndeyam a koy def jullit ak baayam wala ñoo koy def yéefar kon sonnal ci sa doom balaa juddu sonnal ci sa doom bu juddoo yonent bi gane na àddina aywa daje nañ pour yóbbu ko mu dem nampi weer wi gaa yi war a jël ci liir yi jot na ñu ngi ñëw di seet liir yi ci kër yi kër Ibra laay njëkkee ndax Ibra patron la salaamaaleykum Ibra amoo xale buy namp ankañ sama sët bi amoon na doom barki démb wala weer wale paase yow foo dëkk maa nga dëkk si bi xotaan wala maa nga dëkk faas caaxo walla maa nga dëkk cikkat wala maa nga dëkk boy naa ji looy fayeku man de fukki junni ak ñaar laay fayeku par weer wàññi ko fukki junni baax na liir baa ngoog fay ñetti weer a ngoog nga dem du tere nag weer wu jot dana ñëw indi fay gi nemmeeku doomam delluwaat noonu la arab yi daan nàmpale biñ ñëwee nag ci kër yëpp jël liir yi ba mu des Seydunaa Muhammad ku ñëw rek salaamaaleykum waaleykum salaam kunta siidi sëñ siidi maxtaar kunta kunta kunta kunta naka nga def maa ngi fi yow ana sa man de sama sët bi am na barki démb kuy baayam Abdoulaye Ah, mooy Abdoulaye moomu gaañu woon ca weer yële waaw waaw waaw moom la moom la de moo fi nekk liir boobu de a ngi fi waa may ma ma seeti liiri Abdoulaye ci sekk bi ba pare amuñ ci sa mbaayam dee na amuñ pour ñoom kuy fay waaw ah, kañ loolooy wax bi kuy fay xam nga bëgg koppar yàgg na fi hmm. bëgg koppar yàgg na fi xaaral ma seeti Abdou Aziz Seck moom day technicien la moom doomam naka nga def waaw man de sama soxna am na fi bari doom sax weer wii paase garaawul fukki junneeg ñaar ah amul solo dinaa la ko jox ah xam bii nga xam ne bàyyam na bu yàgg aay na gaaf te loolu lañ ko doon wax di aay na gaaf te juddoogul kii bu duggee sama kër sax wóorul yéemuñ ca ñu di ko waxante ñoom i neen bu leen dem kër diw de liir ba fa nekk baayam dee na ba yaayam ba mu amee ñaari weer ci biir yaayam ñépp di ko daw ñépp di daw yonent bi sallallahu alayhi wasallam xoolal politique bi yàlla def ñëpp di ko daw ñi amoon gëlëm ñi amoon fas ñi indi woon yëpp am nañ ay liir yu am ba yóbbu alimatu saadiya nag problème bi mooy mbaam la yoroon moo mujjee xam nga doxu mbaam gaawoon mbaam moom balaa muy gën a yéex sax nga di ko fudd mbaam moom danga koy bàyyeeg sagoom sayit ma amoon na sareeti mbaam xam na li may wax du caaxaan sareet amoon na sareeti mbaam mbaam moom da nga koy bàyyi nii ci coobareem wala nga naan ko ali ali ali ali boo moom baat bi bu nga koy dégg rek mën na sax waaxu waaye boo reppee ba jël yet ba dóoru ko day concentré wu day siisu mbaam moo tax ñu tuddee ko mbaam yàlla kañ lu muy wax ci alxuraan sax mbaam lay indi misaal <laughs> ba muy wax ñi jàng te duñ jëfee seen jàng yi sa mbaam lay indi de waaw waaw mu wax masaluhum ka masalil ximéeri yaxmilu asfaaran bii sa masalul qawmi alladina kadabu bi ayatina wallahu la yahdi alqawma alzalimin inna beneen ba mu ne inna ankaral aswaati la sawtul xamiiri gis nga biiri yàllaa ngi wax ak ñi jàng te duñ ko jëfee ñu ne ñoo mbaam mu yenu téere yam loolu la yàlla wax ah, Cheikh Al Hadj Abdou daan ca dolli nag mbaam mu yenu téere du ci am benn chèque bu muy tuuse ji diisaay rek la ciy jëlee noonu la ko sëñ Abdou daan firee du am benn chèque bu mu cay jële pour tuuse ji ko lu dul diisaay bële ci ñiy wax di yuuxu di ŋàlleeku yàlla na wàccee leen seen baat inna ankaral aswaati la sawtul xamiir yi maa ngi leen di wax ne ki gën a naqari baat ci li ma bind man yàlla mooy mbaam te buy ŋaaxkat moo ngalawal yaay ànd moo tax moo tax baatam gën a naqari faf mbaam buy ngaax rek mu ngay ngalawal boole ci yàlla na inna ankaral aswaati la sawtul xamiiri seetal li ma la wax nag ah kenn du rasulullahi kenn du moom alimatu saadiya moo mujjee yegg si ndeysaan bi mu yegg see kër gum dugg ñu ne ko ah soxna si yow jigéen ji yow danga nga tardé yi liir ba léegi lañ ko joxe muy wër kër yi di wër kër yi di wër kër yi ba yegg si ci kër Abdullahi fekk Aminatu bintu wax bi na ngi toog mu ne ko liir laa doon ut mu ne ko ah, ah kii de maa ko jur mu ngi ko leewu nag ndeysaan kii de maa ko jur baayam nag dafa gaañu bi mu amee ñaari weer ci sama biir ah léegi nag mu ngi nii ni ñuy waxante mu ne ko waa may ma ma dem seet kër Abdou Aziz Seck ba pare mu ñëw kër Abdou Aziz Abdou Aziz ne ko man sama liir joxe naa ko léegi mu ne xaaral ma dem seeti Ibra Guèye ba xam mu ñëw Ibra ne ko ma it sama liir joxe naa ko mu ne xaaral ma seeti papa Guèye ba xam mu dem papa ne ko man sama bos joxe naa ko mu ne xaaral ma seeti Sidi Ahmed mbay Sidi Ahmed ñëw ne ko laa yow nag yaa ñàkk sens léegi léegi léegi la sama liir dem bi mu duggi duggee juróomi kër liir yëpp dem mu ne balaa maa ñàkk déglu wax bi de balaa maa ñàkk naa jëm jëliwaat liir ba ma njëkkee woon ñëw ne Aminatu bintu wax bi d'accord na léegi noo nu ñuy fayee mu ne ko ah xanaa nga yóbbu dara newu fi de bu weer wi di dee nag dinaa jéem bu ay baayam jàppalee ma baax ma ne buñ ma jàppalee wut ma daan sama doole fay mu ne ko ah waaye loolu metti na di soxna si distance bi ma ñëw yëpp ba yegg si fii joxoo ma dara mu ne ko ah am naa fi ñaari dërëm de xanaa ma jox la ko ñaari dirham mu ne ko ah indi te ma jàpp ci yàlla te moom kat moom mi wax ba muy ñëw soowam taxu koo bari <laughs> <laughs> soowam taxu koo bari de te am amam it melutoon noonu ñi ñëwoon ñëpp fas lañ indi moom mu indi mbaam moo lay won ne am amam demee wutoon noonu rek musiba mi kiraama nag fa la tàmbale bi mu ko joxe bi mu jëlee liir bi ba ne xifeet rek dafa xam yonent bi ne xeet xool ko rek dafa xam moom alimatu saadiya soxna si ne lii la soxna ci nekk aminatu bintu wax bi nekk fa di ko tëpp tëppal tëpp tëppal ba mu jóg soxna si lu xew bi mu ma xoolee leer gi jógee ci bët yi laa àttanul mu jël yonent bi uuf ko moom alimatu saadiya bi mu ko uufee dàq mbaam mi demul mu dàq dàq demut mu dàq dàq demut soxna si ne ko bàyyil ma dimbali la jël ay laytaay teg ko ci kaw mbaam mi teg ko ci kaw mbaam mi tëral ci yonent bi mel ni ku koy uuf noonu dàq rek mbaam mi dem uuf ba la doon bañ <laughs> li gën a doy waar yàlla bloqué na suuf sonn loo fas yi fas yi di leen ndax su bu ñuy dox day day day mel ni ci peeñ la dox dox ba yéex alimatu sadiya mbaama mel ni mercedes <laughs> mbaam mi mel ni mercedes ñëlee ko njëkk dem fuuf mu commencé di romb premier fas deuxième fas troisième fas quatrième fas cinquième fas borom fas yi naan lii du mbaamu kese kese lii du mbaamu kese kese lii du mbaamu kese kese lii du mbaamu kese kese bañ yegg ci dëkk ba loolu di ordre du jour na ordre du jour bi mooy mbaamum alimatu saadiya ma du mbaamum kese kese looloo nekkoon ordre du jour le lendemain moo nekkoon à la une mbaamum alimatu saadiya bi mbaamum alimatu saadiya bi ku xëy ñëw na bëgg a dëñ kumpa alimatu yow de noo def ban liir nga jël mu ne liir ba ngeen fa bàyyi woon de laa jël waaye man de moom mu commencé nag di wax man de li ma gën a yéem mooy tama mbaam mi gaaw gi gaaw ñu ne ko ñun ñëpp looloo ñu yéem loolu lañ fi ut si de mu ne waaye kaawteef teefukaay ma wax leen balaa maa yegg si ci kër gi ñetti béy yi ma fi bàyyi woon fekk naa seen batt yi fees del del del ak meew te meluñu woon noonu mu ne beneen bi ci des mooy man ci sama jëmmi bopp balaa maa yegg si ci kër gi sama meew maa ngi sotteeku te aw ma woon meew te boobu bàyyi na fa benn xale buy namp boo xam ne moom moo ko doon moom alimatu saadiya mu ne xale bii sax boo ko gisee ngeen xam ne damaa amul meew moo tax mu ne waaye balaa maa yegg si meew maa ngi sotteeku mu ne li ma gën a yéem bi ma yegg see ba jox ko ween wi mu namp ma wëlbati sama beneen ween di ko ko jox dafa lank mu ne xale bi mu doon nampandoor it bi ma ko joxee ween bi mu nampee dafa lank mais ween bi yonent bi nampee dafa lank mu jox ko beneen bi mu nangu ndeke yonent bi day bañ lekk ration wu jàmbur kële it ormal la yàlla woo sol na ci xelam ne ko ormalal yonent bi ween wu namp bu ci namp ah keneen ki ki mu doon nampandooral masroox la tudd la ca gën a yéeme yonent masul naa nangu ci namp ci ñaari ween yi fa la nekk fa la nekk fa la nekk ba am ñaari at lu noonu ñaata at la fa def la Maodo ñaari at ci biir ñaari at yi lu ne xew na fa bi mu tolloo ci dawantu la njëkk a génn rek ànd ak masro moomu ak yeneen xale yu ne nekkoon ci ci dëkk ba dem ci gannaaw dëkk bi ni xale yi di def di dóor dàqe di dàqee wante ñu jékki-jékki rek seen ñaari nit yu sol yére yu weex tàll di waaxu di ñëw xale yi ne teg taxaw benn xale dawut nag ñu waaxu rek jubal si ci yonent bi kii téye ci bopp bi kii téye ci tànk yi rek ñu tëral ko rek xale ya teg daw ñoo ni alimatu saadiya yaay yaay yaay yaay Muhammad noonu lañ ko waxee moo tax waaye Seyduna Muhammad am na am na ñaari nit yu ñëw ne melokaanu nit lañ indi jàpp nañ ko ñu ngi koy rendi xam nga bu kii jàppee ci bopp kii jàpp ci tànk xam nga loolu moo <laughs> yow yaa ngay nettali te fekkee woo <laughs> waaye dafa niru rendi ndax xar boo koy rendi da ngay jàpp ci bopp jàpp ci tànk yi ñu ngi koy rendi nag boo gaawul danañ ko rendi li muy gaaw gaaw gaaw fëgg gémmiñam ay càmmeñam génn nit ñi génn bi ñuy ba balaa ñoo yegg si fekk nañ yonent bi di dox di dajeek ñoom ñu ne ko lu xew mu ne man de xaw ma lu xew lan la wax ñu dëgg mu ne ah ñaari nit daal ñoo fa ñëw jàpp nañ ma luñ la doon def mu ne yëg naa ne daa xotti nañ sama dënn bi am na luñ ci génne ñu xool xool xool dënn bi gisuñ dara ñu xool xool gisuñ dara ñu dem ci benn eh, Eh, seetkat bu doon seet kooku ne leen tëj leen seen gémmiñ kii mooy yonent mujjub jamono ndax yonent mujj jamono jàngoon nañ ci téere yi ne daañu xotti dënnam ñeenti yoon wala juróomi yoon Maodo ban la ci indi moom juróomi hmm? ah, kañ Maodo juróom yi la tudd waaye am na ñoo xam ne dañ ne ñeenti yoon la ku mel ni maam xalifa ñas yooyu yëpp siira mooy indee noonu ñii ne juróom ñii ne ñeent lu mën a am xotti nañ ko ay yoon dënnam bi géej yii lañ doon lenqalee xotti ya ci géej yii lañ ko doon raxasaat pour won ko ne fa nga jóge woon dindi kiñaan dindi soxor dindi mer dindi bon roof jaamu yàlla roof bëgg roof topp roof sopp roof namm yëpp buñ ko buñ ko génnee rek buñ ko opéré rek dafa am yi ñuy génnee roofaat te buñ ko buñ koy xotti malaayika yi nii rek lañuy def mu xottee ko buñ ko anesthésier laser la buñ ne nii rek mu xottee ñu génnee def leneen yàlla sont defaat nii rek mu fermew bi mu amee nag alimatu saadiya ñaareelu yoon bi mu ne xaaral balaa nga maa jommal ñu di la rey ci àll bii ma delloo ji la say mbokk loolu tax mu yóbbu ko waaw mu ne ko balaa nga maa jommal man indil ma fi problème ñu di la rey ci dëkk bii say mbokk jóg dal ci sama kow duma ci fekk xaaral ma delloo ji la say mbokk ci la ko indiwaat nag màkkatal mukarram du noonu la mu nekk fa waaye yéeme nag moom sallallahu alayhi wa ci ñaari atam rek mosul foyee lu xale di foyee looloo yéemoon ñëpp xam nga xale dana foyee saaga wala déet xam nga xale dana foyee e, summi ay tubéyam di daw di wër ci biir kër gi walla déet ah waaw yooyu yëpp xale daf koy foye wala nga bëgg koo sang mu summi ay yéreem di daw di door dàq yow ci biir nga naan ko ñëwal sangu ji kaay sangu ji jaaral fii defal ni yooyu yëpp kenn mësu ko gis ci moom mu am kersa goo xam ne moo jaaxaloon ñëpp ba ñëpp am ci moom kersa te boobu amagul ñetti at bu ko tantaam yi wala mbokkam yi bëggaan wax demal sango ji daf leen di wax bàyyi leen ma ma dem ba ca duus ba summeekul sama bopp te bu ma kenn yàlla bu ma kenn xool ku dut sama yaay bi mu amee ñetti at kenn defalatu ko dara te kenn mësu koo defal dara ku dut yaayam bi mu amee ñetti at kenn defalatu ko dara ku dut boppam te ñu yëg ne li muy defal boppam moo gën a mat ña ko ko daan ji ko ko daan defal ci diiru trois ans ñuy dem quatre ans cinq ans damay tënk ne six ans sept ans ndax question réponse yee tax sept ans huit ans six ans ku génn àddina waaw kañ ah waaw dafa am ñu ne juróom-benni at am ñu ne ñeenti at ñii ne ci ñeenti atam la yaayam génn àddina ñii ne nañ ci juróom-benni atam la yaayam génn àddina Maodo bu mu ci tànn Seydi Hadji Malick ñeenti at yàlla tànn xoolal bu baax de man nag booba lay tànn moom it lan moo dal yaayam lu Maodo wax fu yaayam doon dem abwa hmm? sayid waaw moom laa wax moom it la daloon baay ba dal ko mu génn dem rek ne ma ñëw fii ak fan damay uti lu ma jëfandikoo fii ay fan ma ñëw mu yegg ñetti fan rek sibiru ne ko tàpp la daloon yaayam sibiru ne ko tàpp mu fala yam mu génn àddina léegi jirimut ñàkk na ndey ñàkk na baay ñàkk na baay ci ñaari weer ci biiru yaayam ñàkk na ndey ci ñeenti at ci kaw suuf kon kii te ñaari at yi mu ngi ko def ci àll ba kon ñaari at la gis ndeyam gis bu normal lii dawul yaram hmm? ñaari at la gis ndeyam gis gu normal ndeyam dem fa baayam doon dem fe sibiru dab ko fa moom it mu faatu yàlla stratégie lay tëral xam nga lu tax bu ndeyam màggoon ci kanam bu màggoon ci kanamu ndeyam mën naa mu dóor ko mën naa mu pes ko mën naa mu saaga ko mën naa mu xas ko te bu boobaa da koy wàññi lum ko jur jur lum ko mën a mën a jur da koy wàññi yàlla bloqué loolu dossier boobu mu dem faatu mu des nag ay maamam ak i baayam yu ndaw baayam yu ndaw yi bokk na ci Abu Talib moo jur Seydina Ali yàlla roof ci xol Abu Taalib nag mu bëgg Seyduna Muhammad ba yemalewu ko dara dara dara dara te gëmagul yàlla di ñi ci des ñëpp buñ ko xoolee ku mel ni Abi Lahab bu ko xoolee danaa ngone gii kii lu may naqari ëllëg ci moom lay jóge buy fobee ut si ko sax mu ne ko anduma anduma gone gii bu fi màggee ñun ñëpp suñ pouvoir yi ñu am danañ ko ñàkk ndax boobu ñoom kenn ku ci nekk yaay kilifa ay màkka kenn ku ne am na responsabilité boo xam ne ci màkkatal mukarram moom nga gàddu ngay borom barke di borom alal am bayre am doole boo joxeñee ñu dagg booba ñoom ñooñu ñëpp noonu la Abu Talib ak euh, Abu Lahab ñoom ñëpp ba ci ñoom ñii ñëpp bari doole nag aywa ñeenti at yaayam génn na àddina ñële na juróom benni at politique bi yàlla njëkk a def Seydina Abu Taalib bëgg ko ba gëmeewu ko balaa kenn di lekk yonent bay lekk ba xam nga képp ku am yarluwaan ci sa biir kër nag xoolal ni Abu Taalib doon def nga jéem koo def maanaam xale yarluwaan yi xale yarluwaan yi it nañ doom nañ nekk doomu yarluwaan ndax bari na ñoom it nañ roy yonent bi sallallahu alayhi na kilifa yi roy Abu Talib waaye ñi ñuy yar ci kër yi tamit nañ roy yonent bi ndax bari na ko yaroo ci kër di yarluwaan génn dem am barke dootoo jaar ca kër ga sax ne leen salaamaaleykum man mii di wax ak yéen nag li ma ci yor dossier bii bopp bii maa ngi ko ci yor fii ñi jaar ci sama loxo xaw ma nuñ toll te asalaamaaleykum sax amatuma ko ci ñoom te ñu ngi dundukat yor barke bu dul jeex man li may wax ci sama bopp laa koy natt du ma ci tudd tudd kenn nag waaye moo ëpp dossier bii nga ma indil ñi jaar ci sama loxo te wóor na ma it am na ci ñoo xam ne ñu ngi jonkoon di déglu kañ laay dee ndax loolu lañ ma yéene te fii la ñu jaar ci kër gi fii te yarluwaan tamit lu doy waar la waaye kuy yar nit defal ni Abu Taalib rek te yàlla tax balaa kenn di lekk yonent bay lekk ba noppi su génnee te newu fa sax dafa naan nañ ko tibbal wàllam te la gën a baax lañ koy tibbal léeg-léeg moom Abu Taalib liñ ko daan tibbal yàpp yu gën a baax da koy ton ni dencal ko yonent bi su ñëwee mu woo ko ci biir néeg bi ne ko kaay doom mu ñëw mu ne ko xam naa ne bënoo bokk ak xale yi ndax sa yar sa teggi ndax yow doo xëccoo sukkal fale nga jël lii waaye bu ci mosee ñetti dog rek ne ko jazakallaahu xayran baay abu taalib di ko xool rek bëgg gi mu ko bëggoon mu nga tax nit ñi nañ tey xoolal tamit am na ñu taxaw di bind ay téere naan abu taalib mu nga safara wallahi bind ci ay téere ay téere mais nit ñi luñ yéenee nit safara man looloo ma jaaxal nit ñi lu tax ñuy xëy rek yéene nit safara non nita bon nit a bon Ibra nit a bon nuy xëy bind téere mu jaral la nga bind téere ne Abu Taalib mu nga safara waaye kenn du Maodo ah Maodo ne maa bañ Abu Taalib nekkul safara indi waxu Abbas ba du lool du loolu la Maodo indi jeex na xibru mooy abbas xibru mooy xibrul umma abdullah ibnu abbas du moom la waaw kay abdullah ibnu abbas xibru moom la yonent bi wax wala abbas waaw kay bàyyi yonent bi moom laa yow abbas dafa am abdullah ibnu abbas am abbas abdullah ibnu abbas abbas a ko jur waaye Maodo abbas la wax entre parenthèse li tax nit ñi mooy li ma waxoon ci Muawiya Muawiya bii passé moom laay waxaat ci Abu Talib Abu Talib bu duggul àjjana ñi koy wax ak man ak samay kilifa kenn du dem àjjana waaye kuy dem àjjana bon teraanga jim defal yonent bi liñ sukkandiku ñoom yonent bi dafa ñëw ne ko bi mu nekkee ci feebar bi yonent bi xam ne day dem yoon bi sallallahu ne ko waxal laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ma garanti la ajjana mu ne ko doom xam nga ni ma la bëggee doom xam nga ni ma la fonkee doom xam nga ne yemalewu ma la doom yi ma jur kon xam nga ne wax baat bi wax baat bi tëwuma laa ilaha illallah muhammadu rasulullah tëwuma mën naa ko wax waaye dama koy rusa wax sa mag sa baay yu ndaw yi fi nekk ne dama saalit gis nga jom dama koy bañ a wax sa baay yu ndaw yi ñoom Abu Lahab ak ñooñu damay bañ ñu yàpp ma xam nga ceddo damay bañ ñu naan dama dem bay tëdd ci lalu de door a tuub waaye doom bu dem bu doon tey duma ma xaar nga wax ma ko baat boobu rek tuub la yonent bi demaat jooy la laan demee mu ñëwaat ba ci ñetteeli fan bi balaa yonent bi ñu ñëw fekk mu dog abbas nag mi toogoon di ko di ko surveiller abbas moog moom luñ bokk moog abou talib ñoo bokk benn baay ak abdullahi pour wax bi leer abbas moom la yonent bi tuddee xibrul umma du moom fóoree xeet wi kon kooku ñàkk na xam-xam non fokk ñu déglu bu baax abbas la yonent bi tuddee fóoree xeet wi kan fóore xeet wi ba yàlla waxee ne dëgg nañ ma dégluwaat de pour ñu xam ki wax kan la laa ci jublu ba yàlla ne yasaluunaka ani ruuxi quli ruuxu min amri rabbi wa maa utitum min al ilmi illa qalilan abbas yëkkati loxoom ne ana minhum te yonent baa ngi toog jibril di indi wax yàlla ne yonent bi am na kuréel buy ñëw seen itti du dara lu dul laaj la fu yàlla def ci ruux ci nit waaye buñ la ko laajee te boobu kuréel bi tuuti ñu yegg si jibril gaawant ne ko buñ la ko laajee neel roox sama mbiru borom la yàlla joxul xam-xam bi lu dul ñu néew ñoo ko xam abbas a ngi toogoon jël di yëkkati loxoom ne ko ñu néew ñooñu ci laa bokk yonent bi xool ko ne ko wax nga dëgg abbas waaye mooy noppil abbas wax nga dëgg waaye bu ne ñëw na ci Abbas ne ko fu roox nekk mu bañ ndax ni ko yonent bi defoon nii te waxaatu ko waxal Abbas boobu nag moo ñëw toogu magam parce que xam na ne magam a ngi ci sukkuraat mu ñëw toog ci bopp bi naan ko mag sama waxal laa ilaha illallah baat boobu yomb na mu ne billahi Abbas daf ko waat mu ne digg na mu ne la laa ilaha mu muhammadu rasulullah daal di dox kooku ku ko mën a fen loo nañ waxante ku mën a fen loo ko maa fekkee maa digg Maodo nag boobu la jëli nee na doyloo naa bu Abbas waaye kuy ut seede ba dal ci Macky Sall amoo waaye damay laajte rek damay laaj kuy ut seede ba ci président Macky Sall ne mooy sama seede amoo seede waaw kuy ut seede ba dal ci procureur général amoo seede kuy ut seede ba dal ci trompe amoo seede kuy ut seede ba dal ci <laughs> oh, oh, nuñ koy ti Macron amoo seede Abbas mii raw Macron moo raw président Sall moo raw euh, euh, Trump xanaa xamuñ luy saxaaba xanaa xamuñ kuy Abbas ca xam-xam ba xanaa xamuñ kuy Abbas ca ragal yàlla ja yow mii bind sa téere fii ci Sénégal wala toog ci rajo yi di waaraate abba sa raw sa ndey raw sa baay raw sa maam raw say maamat gën sa ndey gën sa baay gën say maam gën say maamaat gën sama ndey gën sama baay gën samay maam gën samay maamaat koo koy abbas koo koy abbas moo seedeel abu taalib ne dégg naa mu wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah door a dog Maodo ne boobu laa moo tax mu nga ca àjjana di daagu abu taalib ku ko ko yéene mu nga fa ku ko ko yéene wut mu fa ndax yàlla yéene na ko ko ci barke doomam ji sallallahu alayhi wa sallam waaye nit ñi nañ bay seen yi fi caaxaan yi ñu dem ñu dem Abbas ne maa dégg góor gi génn na àddina te mooy ki ko doon protéger boobu yonent bi ñaata at la juróom-ñetti at waaw kañ dangaa xaw a yéex tuuti te bëgguma laa jiitu waaw juróom-ñetti at moo tax ma bëgg di may jàkkaarloog yow juróom-ñetti at la am bi Abu Taalib bii di dem bàyyi taxam juróom-ñetti at la am tumaranke judduwul hmm? tumaranke juddu na bu metti amul jàmm nag waaye dara yàllaa fi ne rek moog yàlla lu ne ñu di ko ko def biir màkk te boobu xale la waaye nag am mag ñu taxaw na hee suñ doomi freer bi kenn du ko fi néewalee doole mukk bàyyi leen jàmbur ndax li xale yi doon fayee moom du ko fayee seen waxi caaxaan yooyu nekku ci léeg-léeg mu ñëw ci kaaba gi rek joxoñ mag ñi yii ngeen di def lan la <laughs> yii yëfi caaxaan yii ngeen yooyu la mag ñi mëntoon a muñ xam nga xale bu tuuti fekk ay baayam yuy toog di jaay ay yàlla ci taatu kaaba gi jaay <laughs> sama yàlla ji moo yore yàllaay ndox moo yore la moo taw bi kii naan sama yàlla ji moo yore xéewal yi kii naan sama yàlla ji moo yore suuf si kii sama yàlla ji moo yore or yi ñetti téeméeri yàlla trois cent et quelques yàlla nga woon ci biir jàkka ja te ñoom paa yooyu ñooy toog di jaay yàlla yi ñiy jógee ci dëkki kaw yi di ñëw Makka capital la woon mu ngi mel ni ñuy jóge fii di dem Chine léeg-léeg rek yonent bi day doxante ba ci seen wet yow looy jaay nga ne yàlla yàlla ay koom ji maa ko yor kon lu tax ñàkk gis nga duma sam sa morom <laughs> dégg <laughs> mu mu ñëw ci ki ne yàlla taw ji lay mooy mooy jaay taw mu ne ko waaw yow looy jaay ko man ndox mi yàllaay taw mu ne ko tawal léegi ma gis doom du ma sa morom dégg nga li noonu la leen di topp benn bu day mujj dajale leen ñoom ñëpp bàyyi yéen a gàtt xel yéen yii ngeen di jaay nii du dara mu ñëw nag ci benn baayam bu doon jaay mburu yàllaay mburu yàlla ji mburu lañ ko defaree mu ñëw xool yàlla ji même yàgg ne ko papa yow lii looy jaay mu ne ko yàllaay mburu mu ne ko lu mu yore mu ne ko moo yor xéewal yi lekk geeg yooyu te te benn nopp bi nopp bu mag la amoon nag benn nopp bi dafa dëñ mu ne ko waaw yàlla ji benn nopp la am ana beneen bi mu ne ko sama doom jee xiifoon yootu ko lekk <laughs> mu ne ko doo am xel yàlla joo xam ne boo xiifee lekk ko loolu yàlla mu ne ko doom du ma sa moroom waxoon nañ ne ku dijji marine nga yow dégg nga li ma la wax génnal fii noonu la leen daan toppee léjal leen witt nag te boobu amagul sa fukki at boobu amagul sax fukki at la jël leen witt moo tax paa yi bañ ko nag paa yi moom boo amee dëgg rek ñu bañ la paa yu jubut yi nag la paa yu jubut yi yëpp boo nekkee ci dëgg ñu bañ la ma tënk ñuy dem ba am fukki at ñuy dem ba am fukki at ak juróom bi ma amee fukki at ak juróom nag la commencé nag yow maamam moo gaañu woon ban maamam Abdul Muttalib moo gaañu baal leen ma pour ñiy déglu gis nga sama xel a ñëwaat Abu Talib gaañoogul Abdul Muttalib moo gaañu maamam ci bi mu amee ñeenti juróom at ngeen baal ma Abdul Muttalib bi jur Abdullahi jur Abbas moo jur Abdullahi moo jur Abbas Abdullahi moo jur yonent bi ak Abbas mii ma doon wax ak Abu Talib bi jur Seydi Seydina Ali tabbat yadaa abi lahabin nu mu tuddoonati moom sax abi lahab ñooñu ñëpp abdul mutalib moo leen jur fukki doom la amoon moo jurit hamza moo jurit jaafar pour yow mi may doglu ñooñu ñëpp abu taalib moo leen jur fukki doom la amoon fukki doom yëpp abdullahi rek a ci wàññeeku woon mu des juróom-ñeent gis nga li yàlla di def léegi nag fukk yooyu waaw maa ngi ñëw waaw loolu loolu jàll naa ko danga fàtte danga yéex a ñëw at bi yonent bi judd boo ko bëggee xam moom la sayid di wax mooy atum aamul fiili atu ñayya at mi nga xamee ne abraha ci la takkoon ñayya di toj si kaaba gi ndax nee na woo dañ koy romb moom dëkkam di ñëw màkkate loolu neexu ko mu laaj tey lu tax ñu ne ko màkka dafa am kaaba gu fa nenk goo xam ne moom la ñuy tawaaf mu ne ah, loolu du problème ñu indil ko architecte boo xam ne da yónni moo am Abdraha moo yónni architecte bi màkka mu xool kaaba gi ni mel ñëw ne ko mën naa laa tabaxal kaaba gu ni mel mu ne ko acca bu ko defee karawaan yi jaar fii di dem màkka dañuy yem fii rek benn yoon mu ne ko ah, mu tabax kaaba gu rafet <laughs> toppandoo mu tabax kaaba gu rafet daanaka ci taar ak architecture moo dàq sax baytilaayil xaraam bi mu ko tabaxee ba sotti bu karawaan di di doom bu mu ne leen màkk ngeen ñëm ñu naan mu ne kaabaa ngi nii ko booba waaye duñ ko wuyu sax duñ ko wuyu sax yooyu doo ko waxagum da ngay bàyyi ba ci kanam mu continuer ñu continuer mu gi nag li ñuy romb kaaba am gi di dem mu metti ko nag mun léegi nag su ma bombardé kaaba gale ba mu ràpp xanaa dinañ wër sama bos bi mu jël ñaar téeméeri ñay deux cent kon bari na deux cent ñay ak bosam bi mu war moom muy deux cent un xam nga armée armée bu rëy la lum romb ci àll bi nag nangu ko moom Abraha ba bi muy yegg si màkkatal mukarram at boobu la yonent bi judd nag moo tax ñu tuddee ko atum ñay ya pour dire yow mi ut histoire kañ la yonent bi juddu atum ñay ya ba mu weesoo jur euh, cinquante jours la Maodo wax baada nuunin bi aamil fiili yowman baada nuuni nuun mooy cinquante waaw déglul rek ba mu ñëwee nag fekku fa Abdul Muttalib dafa dajeeg moom ndax dafa confisqué ay gëlëm yoo xam ne déggoo muy ñëw gëlëm xar béy nag lu mu gis rek da koy confisqué léegi nag mu confisqué téeméeri gëlëm yoo xam ne Abu Talib a ko moom Abdul Muttalib moo ko moom Abdul Muttalib digg ne Abraha confisqué na ay gëlëmam mu war fasam fekki ko ci yoon bi ku am fit la moom kese te ki muy fekki buur la rëpptal ba yegg si ne ko ne ana Abraha mu ne ko maa ngi nii mu ne ko dama dégg ne sama gëlëm yi doon ñëw yaa leen confisqué mu ne ko waaw mu ne ko ñaata gëlëm nga am sax mu ne ko téeméeri gëlëm lañ mu ne ko léegi loo bëgg mu ne ko nga delloo ma samay gëlëm mu ne ko yow yaa ñàkk fayda yow may ñëw di toj ci kaaba gi yow ngay buuru màkka mag ci màkka tey amoo looy wax lu dul samay gëlëm laa soxla ah dal di xàqataay ne kii ragal la jox leen ko ay gëlëmal demal abu taalib yi jël gëlëm yi ba jiital leen wàññeekuwaat ne ko man li ma moom laa jël samay gëlëm kaaba gële nga jëm nag ne moom ngay toy toji mu ne ko ah mu ne ko boo demee fekk fa borom waaw <laughs> ah, mu ne ko man samay gëlëm maa ko moom jël naa ko alhamdulillah waaye kaaba gi nga xam ne nag yaa koy ma nee nga moom ngay toji boo demee fekk fa borom sama yoon newu ci dal di ñëw ci kaaba gi moom abu taalib ne yàlla samay gëlëm maa ko moomoon yaa ma ko sarax de maa moom samay gëlëm jël naa samay gëlëm sa néega ngoog nag boo xoolee bañ toj ko sa affaire la kenn dootu la jaamu dal di teg dem këram tëdd abraha di ñëw nag di ñëw di ñëw ba dugg màkk bi mu duggee màkk ba dara desul lu du direction kaaba gi ñay yi ñay yi bu dem ba jub kaaba gi rek def nii gars yi di dàq dàq dàq dàq ñay yi bañ direction kaaba gi duñ ko jublu mukk ndekete yàlla am na lu mu préparé alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiili alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi xijaratin min sijilin fa jaalahum ka asfin maakul yonent bi mel noonu man du gaawtu ci wax ci moom ya yàlla abu lahab ne kii astafurlah abraha ne may leen ma ma jiitu bi muy jiitu dàq dàq dàq dàq gëlëmam gi ñëw ba jub kaaba gi yës moom mu yës mooy toog ñay wi ñay wi ci boppam ne mbàpp mu dóor dóor ñay wi bañ rek yàlla indi nag yàlla ne alam auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alam alam alam xanaa alam xanaa tara gisuloo kayfa ana naka faala la doxalee ànd ak jëf rabbuka sa borom ci lan bi ashaabil fiili ci borom ñay alam xanaa yajal moo ci top bi asaabil fiili aw kañ alam yajal alam ndax du yajal defuma kaydahum seen pexe ma fii tadlilin ci pert efor yañ defoon force yañ indi woon lañ defoon yëpp ma def ko muy perte man yàlla fii tadlilin mu ne yemuma ca nag wa arsala ma tayran ay picc wa arsala ma yónni alayhim ci ñoom tayran ay picc ah boo ko doon firi man du may firee noonu nag gaa yi juutal jëli indi bi alam ah, wa arsala alayhim wa arsala ma yónni ci ñoom tayran ay picc ababila yu joge ci ababil ababil safara la xur la ci safara du noonu la waaw xur la ca safara yàlla fa mooñ ay bulet bulet bulet yii jigéen ñi di ñoom ñoom mare maleek amina bulet yooyu bu dogee dog jotee bulet yooyu ngeen di defar yàlla bulet bulet yu sew la defar ci safara <laughs> bomb à retardement moom la mooy bombe en retardement defar ko jox ko ñaar téeméeri picc picc mu nekk xam nga picc yi yan façon picc la woon picc ramoto ñu kepp ko ci seen tànk picc yooyu yëpp ndekete ay malaayika lañ forme malaaka la eh, picc la leen yàlla def ñu kepp ko ci seen tànk bulet bu ci nekk bii ñu ngi ci bind turu abraha du mooy abraha bii turu kenn ku nekk ñay wi nga war sa turan ci bulet bi picc bi day naaw rek ba tiim ab kenn ci ñoom yàlla ne ko kooku la mu wacc boo wàccee fii lay fii lay tàbbi ci diggi bopp bi fii lay jaar jaar ci boli gi ramasser butit yi génnee ci fi muy demee douche mu daanu àkkee ji ca wa nag ñoom ñëpp yàlla ne tayran abaabila tarmihim ñu di leen jol di leen sànni bi xijaaratin bu jógee ci eh, safara xeer yu jógee ci safara tarmihim bi hijaaratin min si sijilin ababil bu la neexee ma ay kuréel ay kuréelu picc maanaam picc yu bari xeer yooyu ñu di leen sànni nag min si jiil safara su ñuy wax si jiil waxoon naa la démb ne la safara dafa bari ay tur si jiil tur la ci turi safara yi fa la yàlla mooñee bulet yooyu nag jox ko picc yooyu ñu koy sànni ci seen kow bopp yi kenn koo ne dañ bind sa tur ci bulet bi bu dalee rek jaar ci boli gi ramasser butit yi génnee ci fi muy demee cabinet bi hijaarati min sijil fa jaalahum ma mujj def leen rek ka asfin comme mboob maakulin bu jur di lekk yàlla ne ma def leen ni ñax mu wow ka asfin maakulin kon comme mboob moo xam ne moom la jur gi di lekk nooy nepp yàllaa xereñ abraha biñ ko dóoree bosam deewut ci saa si dafa daw ak gëlëmam wëññeeku yàlla bàyyi na ko ba mu yegg këram ba dugg ci paleem ba tëdd ci lal bi di sukkuraat nag moom la Maodo indi di sukkuraat di sukkuraat di sukkuraat ba kan moo ñëw ko laaj mbir ma nu mu tëddee mu di ko nettali ndax gëmuñ ko woon moom abra xam nga nettali ki fekke mu naan ko hé dootul am ay picc lañ maa leen gis ñuy waddal xeer yi ñuy daanu ñuy waddal ñuy daanu ma daw bi mu nettalee ba yépp paase rek la picc mi ñëw tiim koog bosam <laughs> moom bi mu nettalee ba pare bay waaje ba ba mu wóor ko ne histoire bi yëpp nettali na ko be bind nañ ko rek picc mi ñëw tiim ko ne ko sa bosa ngi muy daw ci ay yaa ngi te ci lalum mën mënta daw bu dawee nii picc mi di ko def nii rek comme pom bombu téléguidé la picc mi di ko def nii bu nii rek mu ne nii mu di ko kokkali rek naan ko du yoo yooyaay patron bi yooyaay ki ci gën a mag du yooyaay buur bi mu ne ah, mu ne ko sa xeerango xam lu la wóor ne moo lay rey mu ngi mel ni ku la ni nii pistolet rek mara deytaale te mu wóor na ne borom caaxaanut nooy def rek mu tiimale ko xeer bi su dawee rek pexe bu ne def na ko mu ne ko sa borom nee na yaa bon rek waddal ko ci bopp bi jeex na loolu la Seydi Hadj Malick wax yaa fi indi loolu yëpp sayit maa nga woon ca biir man waaye kon moom it ah, boo àllarbaa danañ ci mos danañ ko yeggali waaye ma tëjee ko fii pour mën na jël yenn question yi ndax ñoo ko diggee woon waaw Seydi Hadj nee na bi ñay wi jógee ba jub kaaba gi bu abraha leeru yonent bi moo dox digganteem ak kaaba gi ñay wi sujootal leer gi moom jàpp njàmburam sujootal leer gi jàpp njàmburam waaye dof bi ko yéeg moom gisut déggut xamut muy abraha moom rek la ci ñayam ñibbi nag ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi kii mooy rasulullahi ku mel nii waxal ku def lii waxal ku am lii waxal fii lañ ciy taxaw ba àllarba jàmm ñu mottali la ca des mooy bi maamam génne àddina abi Abu Talib boobu ñuy wax ci à l'âge de six ans à l'âge de quatre ans Maodo bi mu génnee àddina la xew gannaawam bi yonent bi amee quinze ans lum commencé comme métier ak lu xew ca yooye yépp lañ ca mën indi incha allah danañ ko indi ci biir quinze ans yi lam fa am ci métier métier yi mu fa doxal ak ni mu ko doxalee njàng ma maanaam eh, te njàngul métier yooyu jàngu ko njub gam ca wane ba daan ànd ak caravane di dem di uti marchandise di jaay di ñëw di dem di ñëw yooyu yëpp danañ ko indi suba ak ni mu yoree woon kër baayam Abu Talib à l'âge de quinze ans yooyu yëpp mu wàccee baayam Abu Taalib njël yooyu yëpp pour xale bi may déglu ndaw li may déglu yëg ne dafa war a am jom donte 15 ans la am dafa war a am jom donte 4 ans la am bu xoolee ci yonent bi wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana man kaana yarju llaha wal yawmi laaxir fii laa ciy taxaw ba ak jàmm yow mi may seetaan te di ma déglu tegal sa baaraam foofu ba àllarba ma ñëwaat ceeg yow léegi ñu dugg ci questions yi réponses Hmm, kenn du yonent bi hmm, hmm. waaw jërëjëf jërëjëf Aidara eh, jërëjëfu gars yi rek laa lay jottali eh, ñun ñi toog fii moom eh, bis bu ne ci lu ñu filmé ak lu ñu filméwul saa su nekk ñoo ngi jàng ñoo ngi jël ñoom xëy na li ñuy filmé di ko def direct yi ci la ñuy jàng ci la ñuy jël kon donc seen seen jërëjëf ñoom moom laay jottali Euh, di leen wax jërëjëf ñoom ñoom it boobu ba léegi ñu ngi ànd ak ñun saa yu hmm. ñor di rek dañuy ñëw hmm. ay mbooloo yu baree baree bari fépp hmm. fu nekk ci àddina bi nag foo imaginer rek nit a nga fa toog connecté ak ñun di seetaan te dañ koy wax di ko wone saa su nekk euh, bi ñu waxee question yi itam boobu ba léegi question yi moom Euh, bari na macha allah bari na bari na. depuis mm-hmm. boobu ba léegi bi mm-hmm. numéro yi affiché ba léegi. Mm-hmm. question yaa ngi wàcc. xam naa ni du benn jotaay du ñaar du ñett du ñeent moo mën a tontu. question yëpp. xanaa dañuy jukki rek. dem te lay li xaj ci waxtu bi. ci ci temps bi. Euh, euh, su ko defee ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal dañuy jox nag honneur jigéen ñi. waaw ah, kay question bi ñu lay njëkk a envoyé question wu jigéen la. Euh, moom mu ngi tudd Awa Si mhm. mu nga nekk France mhm. euh, moom dafay laaj ne dafa déggoon ci waxtaan mhm. euh, nga wax ne bu fekkee ni da nga amee ay boru julli te fayuloo ko sañuloo naafi la mu dégg ne ñaari ràkkay fajar naafi la la mu ne nag ndax importance bi ñaari ràkkay fajar am sañ na di ko julli tey continuer di fay borom ya ba ba muy jeex mhm. en attendant muy jeexal fay yi mhm. maanaam mu bañ a mu bañ a bàyyi mhm. waxtu fajar ne damay fay farata yi ba pare door di julli ji ñaari rakkay fajar moom loolu la doon leerlu macha allah waaw ma tontu boobu par benn moo ko tontoo rek ñu continue waaw kon soxna Awa Sy ñu ngi koy jërëjëfal di ko ndokkeel di ko wax ne ko ñoo nag ñoo ñoo ànd ci lépp rek loolu ñu wax moo am boo demee ca risaala walla ci laxdari bii walla ca foo dem ci téere fiq yi ku yor bor yu julli dafa xaraam sax waxuma dafa xaraam ci yow nga la ndax balaa ngaa leble da ngay fay bor ba pare balaa ngaa maye dangay ngay fay bor ba pare kon nag ñaari rakkay fajar yooyu bokk ci loolu du naafila naafila la waaye sunna la sunna bu dëgër la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ni jibril alayhi salaatu wasalaam ñëw na ci moom ne ko maa ngeeju woon a nekk nit génn ci kooru malaaka li muy malaaka di rëy xam nga malaaka fa la mbaax yem ndax leer lañ mënuñu mooy yàlla xam nga kon ñooñu jaamu yàlla tewu leen te li ñuy jaamoo yàlla xoola douze mille ans yi ma wax ba ci mille bi ci jibril di weranteeg yonent bi du wax naa la lim ko wax mu ne ko maadoon doon booba jibril ku am waxyu moom la ko yàlla jox moo ko indi cent vingt quatre mille yëpp moo dox seen digganteeg bor seen borom du noonu waaw ku toll noonu déglu leen de pour importance su ñaari ay fajar yooyu muy wax laay wax jibril ku toll noonu noo koy déggee tey mu ngi mel ni Donald Trump bu noon États-Unis ñu ne ko ah mu ne maa ngi leen di ñaan dama bëgg a démissionner tey dem Sénégal ñu ne ko looy uti senegal mu ne damay seeti ku ñuy wax Chérif Ibrahima ay dara toog ca moom <laughs> waaw xam nga waa Amérique dañ naan kii moom ile fu dafa dof Jibril bi ñëwee ci yonent bi daf ko ne maa ngeeju woon génn ci kooru malaaka nekk nit bokk ci sa xeet wi ndax ñett yi mu ne ko ban mu ne ko ñaari ràkk ay fajar yàlla wan na ma man jibril yiw wi ci nekk mu ne ko jokk diggante bu yàqu ma defar ko diggante mbokk gu tas wala xarita ak xarit bu diggante bu nar a yàqu man jibril ma defar ko teñ bokk ci sa xeet wi jaral na ma génn ci kooru malaaka nekk nit bokk ci sa xeet ñetteel bi ban la woon ñetteel bi mu ne ko toog di la xool toog ci sa ron rek di la xool jaral na ma ko kon ba jiitu ban la si yow moomu doon laaj soxna awa kon ba jiitu mooy ñaari ràkk ay fajar yooyu yonent bi nee na li muy woyof woyof moo gën àddina ak li ci biiram buñ ko rangale woon gëlëm yu xonq ne la yaa ko moom ñaari ràkka yooyu ko gën kon leer na kon ñaari ràkka yooyu bokk ci waaw waaw maa ngi ñëw mu firi waaw waaw waaw jibril tegal ko ci ne ko sama laaf yëpp bu ma ko firi woon di naaw ngir yool boobu sama laaf yëpp dana jeex wala mu damm te yool bi du jeex lahum ajrun ghayru mamnun kon ñaari rakka yooyu bokk ci ñaari rakkay gannaaw timis bokk ci safa witr bokk ci ñaari rakkay fajar yooyu bokk ci ñaari rakkay gannaaw timis bokk ci safa ak witr bokk ci ndax yooyu sunna yu dëgër la yonent bi salaay ko ma ci sax bu dee taalibe tiijaan bi may déglu ba muy leb julleem yooyu muy leb tariqa bi fekk jàppoon na ko Seydina Cheikh moom nee na obligation par la force ñaari rakkay gannaaw timis yi daf koy remplacer cinquante salatul fati saa buy sëlmalee timis safa ak witr bu jullee safa ak witr ba pare witr daf ciy teg ñetti jaw jawharatul kamal daf ko war a fay waaye bu dee nag kii leb julli bam mu koy leb du taalibe tiijaan safa du ko fay witr du ko fay ñaari rakkay gannaaw timis yi du ko fay ñaari rakkay fajar yi waxe noppi kon daal ne ko su moyee yii naafila coobare yi muy def boppam defal boppam comme fanaan naafila ci guddi gi wala nii mu ñi gars yi di def ñaari rakka avant tisbaar wala ñeenti rakka avant tisbaar ñeenti rakka avant tàkkusaan yooyu yëpp dafay xaraam ci yow nga def ko boo bore yore boru naafila bismillah hmm? kay jërëjëf boo yoree boru julli waaw boobu yaakaar naa ni leer na mhm. Euh, moom mu ngi ci ligne bi. Mhm. bokk na ci fidèle téléspectatrice yi nga xam ni. Mhm. daanaka booy commencé direct bi sax moom bokk na ci ñi njëkk dugg saa ne mu ngi ci ligne bi nuyoom jàll na sànq ci bi ngay door a démarrer. kon mu ngi ci ligne bi di déglu bu baax mhm. moom soxna aw moom. Euh, ki ñu ci teg ba tey jigéen la. ba tey France la nekk. Euh, moom question dafa xaw a niroog lu mu lay ñaan ndax dafa ne. moom dafa bëgg a jël wirdu Tiijaan. France la nekk nekkul Sénégal mhm. nee na jàng na jawaratul kamal ba mokkal ko mhm. jàng na tamit salaatul fatih ba mokkal ko mhm. mu lay laaj ndax mën nga ko tegtal ku ko jox foofu mu nekk wirdu bi ku ko jege koo xam ni doy na la ci jox ko wirdu wala am na qualité wu mën koo jox wirdu foofa ndax xam naa ni dafa pareegul pour ñibbisi wala mënagul a ñëw daal waaw foofu ñaar mooy tànn ñu ngi koy nuyu moom itam soxna soosule soxna Aïcha Euh, tarixa ku koy ñaan Cheikhuna Tijaani borom tarixa bii dafa ne bu ko propagande bu ko ne kaay ma may la bu ko woo ci dara bàyyi ko ba xoolal boppam ne mën naa jël tarixa bi mu jël ko su boobaa it doo ko orienté fen moom mooy xoolal boppam muqaddam ba ko neex te am ndigalal joxe tarixa bi mooy am ijaaza mu dem ci moom mu jox ko muqaddam boobu nag fu mu mën a nekk bu nekkee pari mën na ko ko jox tey fii ñu nekk bu doon muqaddam boobu mu bëgg mu jox ko tarixa bi senegal la nekk moom mu nekk pari mën na ko ko jox par téléphone mën na ko ko jox par téléphone bu nekkoon fu mu mën a nekk ci àddina bi mën na ko ko jox par téléphone bu ko joxee charte yi daal mu nangu wér na ci tarixa bi ne mën na ko ko jox par téléphone te day wér ak muqaddam ba mu bëgg fu mu nekk bu dee waa ammaa nag muqaddam bu nekk foofu ca Paris pour ma boole kook moom mu jox ko ko ah xaw ma fa ku ma doy boog man ndax tarixa bi dafa critique waaw man xaw ma ma doy koo xam ne mën naa ko fa yebal pour mu jox ko tarixa bi ca dëgg-dëgg nag su ma ko amoon nit danaa ko fa yebal kon maa ngi koy tontu loolu waaye bu bu fekkee am na beneen muqaddam bu mu bëgg mu jox ko tarixa bi moom fu mën a nekk ci àddina bi mën naa jokkook moom téléphone mu jox ko ko su fekkee ne lam waxit muñ na ba ma ñëw Paris man mën naa jël sama numéro fu ma nekk mu fekk ma fa ma jox ko ko ñaar yëpp mën na nekk waaw jazakumullah loolu may ma nag baraa ngay dugg ci beneen question am na beneen jigéen bu ma woo biig moom yóbbante ko ñu koy wax Seydatuna Yaasin Aydara moom mu ngi may dégg moom nee na dafay laaj li tax ma ne moom ci li ma waxoon la doon laaj maliki yow mi diin ak maliki yow mi diini ma ne ko maliki yow mi diini maa ngi koy tontu ne ko maliki yow mi diini baax na maliki yow mi diini baax na boo ci jàng rek baax na bii da di warsh bii da di xafs boo ne maliki yow mi diini mooy wa mooy xafs riwaayatu xafs an naafi an an asim boo ne maliki yow mi diin mooy riwaayatul warsh an naafi waaye nag bu dee ci doole ak dëgëre ndax warsh Seydina Cheikh nee na yonent bi moo ko ne yàlla bi muy wàccee alquran ci moom ci bi riwaayati Warshin la ko wàccee ci moom donte yeneen riwaaye yëpp wér na waaye maliki yow diin moo ëpp doole maliki yow mi diin boo ne maliki yow mi diini mooy benn buur rekk a am mooy yàlla moom da nga xoolaatoon keneen mu ngi mel ni ko am benn jabaram mu doy ko mu ne takkuma keneen kii rek a fi ne wala jigéen du am ñaari jëkkër benn jëkkër rek lay am boo ne maliki yow mi diin mooy yàlla rek a fi ne boo ne maliki yow mi diin yi nag mooy buuri buur yi ëllëg man d'accord nga ne yeneeni buur am na waaye yàlla supérieur buur yépp loolu mooy dëgg waaye jëmm gi indi gi nga indi yeneen buur am na rek di ko dendaleek yàlla <laughs> waaw moo lay wone ne ba doolu mooy kenn newu fi ku dut yàlla mooy malik yow mi diin beneen question loolu laa koy tontu beneen question bi ci topp euh, moom it ku ñuy wax Maodo ay dara moo ko laaj moom dafa ne naa ko tontu ci li ma waxoon ne alam naj'al lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najidayn mu ne naa ko ko tontul ndax ñu xam yàlla ma di ko wax ne ko xam yàlla la kenn du ko jàngalee <laughs> ci télévision ak rajo xam yàlla kenn du ko jàngalee ci télévision ak rajo xam yàlla yaa nit ki la lum la sant nga def lum la tere nga bàyyi ngeen ànd dem ca yàlla mën nañ ko firi nag waaye firi gi ak jëf ji du benn waaw alam najal lahu aynayni yàlla ne xanaa duma la defal ñaari bët wa lisaanan ma defal la làmmeñ wa ni ak ñaari tuñ yu ko tëj kon bokk na ci yegg ci yàlla xam yàlla tëj sa gémmiñ wa lisaanan wa kon ku tëj sa gémmiñ rek fa na fa hadaynaahu najdayni jeex na loolu yeneen détail la <laughs> waaw loolu yeneen détail la dama koy wax ne ko rek xam yàlla foofu la ne mu ci diggante boobu alam najal lahu aynayni wa lisaanan wa shafatayni wa naji day di door a ñëw nag lay tax nga yegg ca yàlla nag bene yegg naa ci yàlla fa laqatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba faqu raqaba aw itaamun fi yawmin zi masghaba foofa ngay jaar kott kott yollu yollu ba yegg ca yàlla aqaba yi mooy kiiraay yi aqaba mooy kiiraay kiiraay yi tax nga yegg ci yàlla te doo yónnantu yow nag miskin bi nga teral fajal ajoom keneen keneen keneen keneen incha allah foofu laa ci yem continuer euh, bari yoo xam ne euh, soxna Aminatu la jaare ci ci whatsapp am ay question audio la yoo xam ni waa kër nga xale yi ñoom ñëpp posé nañ question waaw xam naa ni euh, dinañ ci jël beneen rek boo xam ni balaa ñuy kii ak ñoom yi ci des. bu ñu kii ñu jàllale ko seen jotaay. parce que kii dafa laaj laaj bu am solo ndax dafa ne. dafa dégg nga ne bu nit ñi demee àjjana. waaw euh, incha allah yàlla nañ ci yàlla boole ñun ñëpp ak ñoom ñëpp ñi ñuy déglu. nee na dafa mel ni lu am réception boo xam ni dégg na nga ni yàlla dafay recevoir ci yonent bi ñi euh, ay jullit ñoo xam ni. Mm-hmm. danañ fa def réception boo xam ni yonent yàlla Daawda dina fa nekk mhm. jàng saar yonent yàlla Muhammad dina fa nekk jàng saar yàlla itam dina fa nekk jàng saar mu ne nag loolu dafay laaj ndax mhm. jullit ñi dem àjjana ñëpp ñoo fay nekk wala ci biir jullit ñi dem àjjana tànneef fii dafa am ñu ñuy tànn ñoo xam ne ñooy fekkee réception boobu loolu la doon leer lu waaw ñëpp koy fekkee question bu pertinent bu baax ku dugg àjjana rek réception boobu di nga ko fekkee après nag affectation ya bu ñu la affecté sa kër nag mu des nooy gisee yonent bi nooy gisee yàlla loole nag ca say jëf ak sa àjjana lay dépendre ndax àjjana yi ëppante catégorie waaye réception boobu moom ku dugg àjjana rek di nga ko fekkee yàlla nañu fa yàlla boole nag yaa xam premier àjjana nga nekk wala huitième àjjana ndax àjjana yi huit huit la premier ba huit safara yi sept la premier ba septième fii premier bi deux bi moo ko gën a luxe deux trois ko gën a lix quatre cinq ko gën a luxe cinq six ko gën a luxe six sept ko gën a luxe sept huit ko gën a luxe dénga wax bi bu dee safara moom nii la ay dërakaat la àjjana ay darajaat la safara ay darakaat la gis nga ni ni ñiroote bokkuñ darajaat darakaat safara premier moo gën a leger deuxième moo gën a tàng moom nii la kal la ay kal ay kal la moom premier moo gën a légère deuxième moo gën a tàng troisième moo ca topp quatrième moo ca topp cinquième moo ca topp sixième moo ca topp septième nag moo gën a tàng yëpp yëpp yëpp yëpp foofu la yàlla di dugal naafeq ya inna al munafiqina fi darki l asfali min an naar la yàlla wax nee na naafeq yi nag ñoom lay dugal ca kal bu mujj ba ñooy xooñu taal ba ñooy xooñu bool ba dégg nga wax bi waaw kañ waaye bu dee àjjana moom réception ba yal nañ ca fekke yal nañ ko fekke yal nañ ca bokk gannaaw gudd fa nag waaye ku dugg àjjana rek réception ba ca nga bokk ndax réception la tudd réception doo ñëw ñu naan la boo amee carte dugg rek moom lu fa xew da nga koy gis te am nga carte dugg carte ba mooy dugg nga àjjana kon réception ba faw nga fekkee ko incha allah. macha allah jërëjëf eh, Aydara boobu tamit leer na eh, kii question la boo xam ni moom dafa ne mm-hmm. eh, soxna si dañu ko may boroom kër mm-hmm. muy ñëw sëy si si kër gi indaale doomam bu jigéen boo xam ni mhm. euh, daf ko amoon ci beneen sëy maanaam mhm. bi mu ñëwee sëy si si kër gi mu fekk boroom kër bi ko takk itam am na doom ju góor ju ne ci kër gi mhm. muy laaj ndax doom ju góor jooju mën naa takk doomam ju jigéen ji nga xam ni moom la indaale waaw waaw booboo gën a ti moo dàqati ndax yekk du yëll gan <laughs> booboo dàq moo gën ibra yekk du jël gan <laughs> loolu la wolof wax de yekk du jël gan ki sëy si ci kër indaale doom loolu lañuy wax doomu jiitle ndax jëkkëram bii muy sëyal si nag doomam bii est-ce mën naa takk kii mën naa nekk loolu la de yaakaar naa sëñ Sidi mën na nekk ah, doomu jiitle la juru ko bokkuñu dara dara lañ bokkut ndax moom it xale bu góor boobu dafa teey xel rek nag waaye moo dàqati nag li ma wax de yeeg yekk du jël gan ndax yow sa doom bu sëyi jee feneen xamoon nu mu fay mel kon doomu boroom kër gi takk ko borom kër gi di la surveiller yow nga koy surveiller moo gën a yomb ci xel nag day teey waaye sharia nangu na ko bokk leen dara xale bu jigéen bi yow yaa ko jur ci sa biir moom baayam moo lay deñ ci yow waaye moom yowit it ko ci sa biir doomu jiitle la xam nga lu tax ñu tuddee ko doomu jiitle danga nga ko jiital dem sëyi loolu rek la kon mën naa jiit leen ka fa nekk ñu wéy <laughs> jeex na waaw jërëjëf Aïdara kii it mhm. euh, question am xam naa ni mhm. euh, dinañ ko dugal ndax lu muy lu lu faral di dal suñu jigéen ñi la mhm. moom dafa ne dafa am doom ju ndaw liir mhm. euh, dafa jàpp dafa jël wirdu tiijaan mhm. léegi dafay def buy wird mhm. doom ji dafay jooy te berceau bi fi mu nekk dafa xaw a sori fi muy toog di wird léegi day dagg wird wi dam jëli ji xale bi dem jëli ji liir bi léeg-léeg jooy yi gudd ba pour mu nax ko sax du yomb day obligé boot ko jug taxaw di baagante di wird nee na ndax baagante boobu muy def di wird Euh, tarixa bi nangu na ko mhm. wala de ak dagg bi muy dagg aussi wird bi di dem di jëli ji doom ji mhm. ndax loolu daal lu ci tarixa bi wax loolu lay laaj xam naa moom bu buñ ko tontoo rek fa lañ koy yemale ba àllarba bi di ñëw ñu jël yeneen yi ci des incha allah ndax heure bi dama bëgg ñu respecté ko waaw jërëjëf moom ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax jigéen bu demee ba jël tarixa rek njàmbaarte fa la yem na dëgg dëgg nag nañ waxante dëgg jigéen bu demee ba jël tarixa dëgg yàlla fa la njàmbaar yem nag fa njàmbaar yam ndax jigéen ak benke ñenkeem jigéen ak sañseem jigéen ak toilettam jigéen ak jigéen waxuma la nag jigéen bu am doom benke ñenkey jooy benke ñenkey sang mu koy boole kooku moom ngéneel la ca nekk yàlla rek a xam nu day nit mënu ko misaal ngéneel la ca ne yàlla rek a xam nu mu waa am maa nag mu des sa doom bi ngay nàmpal couche bi doo tënku rek ci ndakaaru de ndakaaru couche yii ñu am moom balaa moo seeb bay ñëw ci sa yére dana yàgg ku sàggan lool mooy moo koy def waaye sóoraaleel ka ca kaw ga te amul couche yi nga xam ne dañ koy ngemb ay couche lay ay morceau lay boole ngembee laytaayee ko ko moom la ñuy wax laytaay li ko laytaayee moo xam laytaay la walla couche la mu ciy saw di ci dem cabinet yaa ngi ko uuf di laazim wala yaa ngi ko boot di julli fekk seebul ci sa kaw sa yoon newu ci julli gi wér na laazim bi wér na dégg nga wax bi fekk seebul ci sa kaw maanaam toqul ci sa kaw nga xam ne lii saw la sawu xale bi wala lii kabineem e, la laazim bu ma kii nga wax de seen siidi laazim bi yàquut bu dee julli it yaa ngi ko boot julli gi yàquut kon lam ko tëral ca berso ba nag muy jooy dagg wird ak pause wird du benn dagg wird mooy nga wax luñ la tere kulum comme lu ëpp ñetti baat te fekk du sa boroom kër yow jigéen du sa ndey du sa baay bu dee jigéen ndeyam baayam boroom këram waaw waaw boo yoree sa kurus di wér di yow jigéen sa jëkkër sa ndey sa baay buñ la wooyee yaa ngi laazim astaghfirullah ba yegg si ci salaatul fatihi wala salaatu ala nabi wala salaatul fatihi ngay wér di di wér di di wér sa jëkkër na la aminatu ne ko papa wala way bébé wala ma piis wala ma chérie damay wax de yi am yëpp bu la neexee nga wax ko ma chérie lu xew kaay téyel fii waaxul ba ca moom bu doon wax ak yow 48 minutes une heure de temps trois heures de temps téyel fii rek su paree da ngay demaat toog continuer leer na bu dee sa ndey kazalika bu dee sa baayit noonu jigéen daal bu am jëkkër jëkkëram ndeyam baayam buñ ko woowee fam yam na téye wuyu ji leen wax ak ñoom lu wax ja gudd gudd gudd wird wi yàquwut na ñëw toog continuer ak sëriñam bi ko jox tarixa waaw kañ jigéen jëkkëram ndeyam baayam sëriñam bi ko jox tarixa ñii ñeenti ñii lu ñuy wax ak moom lu wax ja gudd gudd lu yàq yàq lu yàgg yàgg yàgg yàqul wird wi leer na bu dee góor ndeyam baayam sëriñam moom ñett la jigéen ñeent góor ñett ndeyam baayam sëriñam moom it ndeyam ak baayam ak sëriñam fu ñu ko woo moom góor na wuy ji leen wax ak ñoom lum yàgg-yàgg na ñëw toog continuer mu des na kii nga xam ne day dem di jëli joomam bay jooy ca berso ba te fa mu doon laazimee ak berso ba sore na na fi mu yem dem ba ca berso ba gàddu doomam ñëw uuf jox weenam continuer lazim na muur ween wi rek fi mu ko koy joxe jigéen ñi am na système bu ñuy def muur ween wi noonu muy nam jeex na ndax ween wi awra doon bu génnee ci biti waaye na ko muur xam na ñoom niñ koy muuree nga muur ko muy namp ngay lazim booboo dàqati muy muucu leer di muucu soow <laughs> booboo dàqati de muy muucu leer di muucu soow bu ci baagante wante ndax baagante di laazim di dem mayuñ la ko lu dul ngay wala tukkib oto géeñ la may ngay laazim di baagante di dox waaye bu dul loolu mayuñu la ko waaye nag bi dàqati man suma ma sañoon sax jigéen bu ciy laazim uufal sa doom aminatu ak keneen ku mel ni moom ngay wasifa di uufal sa doom mu ngi namp meew mu ngi namp leer mu ngi namp meew mu ngi namp leer ngay sàqami salaatul faati muy sàqami soow muy wéy ngay ngay sàqami muy wann ngay sàqami muy wann ngay sàqami muy wann bu màggee rek nekk borom leer kon mbokk yi fii la ñuy taxawandi ba àllarba insha allahu ñu yeggali ci kàttanu yàlla in uridu mm. illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw kay jërëjëf jërëjëf Aïdara question yi macha allah leer na euh, ñuy wax rek euh, suñu mbokk yi nga xam ni ñëpp ñoo ñoo àndoon ak ñun ci Cherif Dabakh TV. Mhm. ne leen euh, dañoo taxaw rek taxaw boo xam ni pose lay xaw a nirool ndax waxtu wi dafa jot te toujours dañuy bëgg a waxtu wi comme ni ko sang bi digley waaye incha allah am na yeneen jotaay yoo xam ne mu ngi ci suñu kanam te lu ciy ñëw rek dinañ ko annoncé comme niñ koy defee ci tele bi ñoom ñu teel koo yëg eh, question yi ñu jaarul ñu ñëwaat ci yeneen yi nga xam ne ñëwaat na itam suñu amee yeneen jotaay ñu tontu ko léegi nag équipe bi yëpp eh, bu Chérif Dabakh TV ñoo ngi bootu sama ginnaaw man man ma bootu ci ginnaaw Chérif. Mm-hmm. ñu jaajëfal leen ñoom ñi nga xam ni ñëpp ñëwoon nañ fi yónnee fi seeni i question ci ñi ñu tontu ak ñi nga xam ni eh, tontooguñu leen. Euh, di jaajëfal ñëpp xam naa ni duñu ñu mën a lim ñëpp ñi nga xam ne intervenir nañ fii ci kii bi ci chat bi euh, dafay gudd te kon ñu jël waxtu ñu jël waxtu wi waaye daal képp koo xam ne rek ñëw nga yónnee nga sa question yëg nañ ko jot nañ ko mhm. ñu ngi ko garder tamit en mémoire ci ñu tontoogul mhm. euh, di leen jaajëfal ñoom ñëpp waaw di wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ۖ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون